amaat nañ ko euh, lépp rek ñu jëm ci jàppale lislaam jàppale diine mu aju ci wàllu SMS yi waaye bi nag dafa am soppite boo xam ne mu am solo bu ci am moo nekk euh, dootoo nekkati naan yaa ngi yónnee SMS chaque jour chaque jour ñi dañ lay ñaan rek nga inscrire euh, ci numéro bi ñu wax 26 26 1 mais pour nga inscrire da ngay yónnee Ali Imran par SMS bu ko defee ñu jàpp que ne inscrire ba te noppi nga pour euh, may Aly Imran semaine bu jot juróom-benn fukki dërëm wala 300 francs ci tubaab bu ko defee dinañ la yónnee bés boo yónnee loolu mu yónnee la benn doigt wala benn xadisu benn xadis nga xam ni li si mën a euh, jàngee sa diine incha allah rabbi loolu daal mooy xew-xew bés bi nga xam ne indi nañ ko fii si association Aly Imran si njiitagu sax Aliou Sall pour bëgg lépp li nga xam ne projet la ci diine ci l'islam ñu mën ko taxawal بسم الإله أنمولها إلى لا بلا مناهي ولا انتهاء بسم الإله أنمولها Bienvenue sur Sud FM. بلا مناهي ولا انتهاء بسم الإله rahmaani rahiim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk ñu déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Sud FM seen rajo seen jotaay mu tuddee alkitab ngeen koy am yoor yoor aj mu jot ci waxtu wi dellu si na dañu ko defal si ngeen ci ànd ak seen mbokk alxaaj al imam al ustaas Alioune Mbaye seen mbokk alxaaji Serigne Mbacke Sylla ak seen mbokk Alioune Sall. ginnaaw bi sante suñu ci yonent bi alayhi salaatu salaam ñaan jàmm ci réew mi ak réew ko wër sama gaay ci studio bi ak Thiaw daal di jox leen sama micro daal di oustaz Alioune asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Hadj Mbacke Sylla asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. tafadala mashkuurayni fajazaakumu allahu xayra. Mm-hmm. shukran jërëjëf jërëjëf oustaz Sakran sëñ Mbacke. Euh, oustaz defaat na euh, tournée salaam. wallaay ndeysaan wallaay. macha allah muy tournée jàmm. Mm-hmm. tournée jàmm yàlla jàmm nekk ci ñëpp waay. amiin amiin yaa rabbal waaw dégg jàmm dégg lees ñu jàmm. amiin yaa rabbal amiin amiin na nga na nga yendoo fanaane ko. ni ma na ma yendoo démb de kurkuri rek. ndeysaan waaw di ma fanaanoo nopp lu tuuti. ak di ko ñemee. <laughs> Ah, walaay ndeysaan. <laughs> macha allah jërëjëf sëñ Mbacke. waaw kay mu waaw ñu ngi fi. ñu ngi ñu ngi sant ñu ngi nam na bi rek. la noonu la. <laughs> alhamdulilah alhamdulilah. Mm-hmm. kon nag yaakaar naa ni mën nañoo tourner. ayca direction bi. ayca bismillah man ngaa rëpputal soobu ci waar wi. <laughs> bu njëkk dama daan togg ma euh, suppa kaañ waaye léegi dafa daa mel ne bàyyi naa ko léegi. waaw fan yaa ngi góorgóorlu. waaw léegi dama bàyyi naa ko léegi. Hmm. xaaral ba xam oustaz lu muy wax <laughs> oustaz. waaw. ma dama daan togg suppa kaañ mais léegi bàyyi naa ko. ah waaw ndax yow mënuma ko toog moo nga daan topp sax ñi ca ñaax ma nga daan ni wala ci ñànk tàng <laughs> ndax boo xasee ci beneen question doo ca génn <laughs> daal léegi daal bay ma trouvé beneen plat bàkki ah, bu nga wutal ko beneen tur beneen tur <laughs> waaye semaine prochaine ñu jib ko xool ayca ah am na benn plat bu tudd jéeg bu tayal jéeg bu tayal palaa jéeg bu tayal waaw mooy mooy ban mooy yaasa ah uh-huh. ustaas nag daa mel ne aayoo ci yaasa jéeg ji tayal yi moom la ñuy togg <laughs> Eh, eh, ndax dafa yomba togg wala. daanaka de. Ah, daanaka de. xam nga moom ñeex. waaw daa mel ni as coble lay doon <laughs> <laughs> jeex na com la ñu sotti ko digg bi rek di ko ci raay ak yooyu. ak juróom ak juróom <laughs> eh, ak. moo ne am na yu neex nag defe naa. waaw ah kay tubaarkàlla. Mm. waaye daal ak boobu ñu tuddee c'est bon. de. waaye mooy mooy palaa jéeg bu tayel. <laughs> waaw. ay ca jéeg bu tayel. parce que kenn mës koo gis rek. Mm. ay ah, waaw kon nag xam naa nañ ko def nañ ko def ci jéeg bu tayel. ay ca kon. Euh, oustaz. Mm-hmm. tey daal dama bëggoon ñu waxtaanee politique. politique encore. encore politique encore. waaw toujours encore. toujours encore rek ndax yàgg naa mooy actualité. Hmm. te tey nag dañ ko bëggoon def ñetti xaaj wala ñeent. Hmm. ndax booy xool ni réew mi tëddee eh, ñi bëgg a falu ak ñi bëgg ku leen fal ak ñi fal. Hmm. mu am ñaar ñu des muy société civile. ñoom dañu fas yéene féete arbitre. maanaam faluñu. maanaam faluwuñu. am na beneen tam groupe bu des muy groupe bu sëriñ si ñu tuddee seen bopp ay sëriñ. ustaas mhm. yeeg imaam yi. ak waa forum civil. Ah, waaw ak waa forum civil. Mhm. ñooñu ñëpp ñu bokk réew mi te ku ci nekk am responsabilité ci lii ñu jëm. Mhm. muy tànn ak tànnin. tànn tànn pendant bi amul solo avant bi amul solo mais après bi moo jara dànkaafu ndax doo xam fu yi di yam mu mel nii ci côté. forum civil mhm. ak société civile ak mhm. ñii bëgg ku leen fal ak ñii faloo góom mhm. ñëpp ñu ngi leen di dégg dégg nañu sax ab marché bu ñuy waajal mu mel ni sëriñ si ustaas yi imaam yi ñoom itam ci côté boobu ba léegi am na ñu ma ci déggagul ci jamono bi ñu toll kañ la sëriñ war a wax ak bu doon wax nan lay waxe alhamdulilah jërëjëf ñu ngi lay bégg baax a baax di nuyu sëñ Mbàkke di nuyu ñëpp di am mbégte ci li ñu waa mbuur di dégg jamono ji hmm. tabarkalla ndax rajo ba ñëwaat na fa alhamdulilah ginnaaw ba mu fa gëjee juróomi at allahu akbar suñu directeur hmm. hmm. yiw Baye ndax ñun loolu bu xewee bala maa yeew nit ñi tàmbali ma tàmbali ñoo woo dëgg la dëgg la ndax dafa am ci penc mi ñoo xam ne bu ñu sañoon lu ne kundum su defem ñu dégg ko xibaar bu am ci penc mi bu ñu ko déggee si defam pour ñoom dégg nañu xibaar. am na ci nit ñi. dëgg mas naa dem ci kër goo xam ne gii ki ñu doon déglu pour mu takk fil de fer. fil de fer yii. ndeysaan. day wax doom ji mu yëg ca kaw puuj ba yeew ko ca. yeew ko ci bant. Mm. wàcc yeew ca rajo ba pour man ñoo am. ndeysaan ti tegu muy xor-xor yi. jamono yu métti ya indifférence ya waaye fi ne tabaarakallahu Alioune Badara Socé mi ngi door ñibbi si teg ay bagages am nii. ndeysaan foofu ñu ngi ñuy déglu ci cent six point quatre cent six point quatre waaw te lu jiitu loolu xam ngeen ne fële ca Tamba waaw dellu siwaat na ci quatre-vingt-dix-huit point cinq noonu macha allah mm-hmm. xam naa bu dee dese mi peut-être Gambie lay dese ak ñu ne demee waaye Jurbel ak Mbàkke ak yëpp Baye oh, oh. eh, xam naa nee na su noppee ci yooyu nag uh-huh. daal di indi nag suñu télévision ndeysaan <laughs> ndeysaan Sud TV lii de kenn xamul loolu ah? ah waaw ba noppi neex na ba noppi <laughs> ma tax sponsor yi fex leen ti ñëw rek ak partenaires yi jàngeen jëf <laughs> wallaay wallaay wallaay tabarkal ñu ngi nuyu suñu gan yi di door ñëw ak euh, waaw wax naa mu tilim yi tabarkal <laughs> Pape Dieye Pape Dieye ndeysaan tabarkal sas Aline uh-huh. penc mi mm-hmm. bu tollee ci tànn mm-hmm. ki ñuy tànn tudd président mm-hmm. wala mu tudd chef de l'État mm-hmm. wala mu tudd ni ko Sénégal di wax borom réew mi dafa am yu bari yuñ takk fi mu nekk nii ba mu jekk mm-hmm. Mm-hmm. bëgg koo dénk kenn ci ñooñu waaw teel ngaa fëgg di waaw teel naa fëgg kay te ubbeeku na bunt bi <laughs> <laughs> dégg yooyu ñuy takk bëgg koo dénk ki ñu tànn mooy dañ ko war a dénk njàng mi dénk ko yar bi mm-hmm. dénk ko atte bi mm-hmm. ah mm-hmm. Euh, dénk ko koom-koom mi ah. dénk ko wér gi yaram gi loolu lañ bëgg a takk aw say tànn ci gaa yooyu kenn dénk ko ko ne ko juróomi at yi yow lañ dénk lii ndaw say wu mhm. mhm. mhm. moo tax yàlla balaa laaj kiñ dénk day laaj ki dénkaane lu tax nga dénk kii lii nga layal ko bu lay wa kañ dénk nag mu ne ko biñ la dénkee lu tax nga doxali nii moo tax ñi xam li ñu dénkee kuñ ma dénk ne du ma jël du jël de. Mhm. dañ lay topp jëlee sa roxo ko yalwaan wala ñu convaincre la nga doon ne kon nag indi leen. Mhm. ndax yëg ne yooyu ñu la dénk. Mhm. lu ci manqué. lu ci manqué. saw lay munu koo leeral fii. wala mën na koo leeral fii. waaye mënu koo leeral fële fële du fa aw lay. waaw lay du jàll. fa la nas alan na la seen ursilay lii. wallaahi wala nas loolu nag. Hmm. ki ñuy tànn di ko dénk yooyu hmm. kenn gënu koo dàq a tànn hmm. sëriñub daara wala nitug diine moo war a gën a dàq a tànn kooku ndax ya muy xool ci jikko ya ya muy xool ca mat ga ya muy xool ca doylu ga ya muy xool ca jom ga la muy xool ca njub ga wax ne bu ko tànn bu ko joxee li nga wax léegi avant pendant ay après mhm. après du ñëw ñu naan ñu naan mhm. suñu yëgoon kii duñ ko tànn mhm. comme xam nañ ko teg loxo te dénk ko yii bu ci nekk da cay def la ca war nit ñi su noppee daa def bilaam ne li ngeen ma santoon nii la woon lii laa ci jot def baal leen ma li li dëng li baax dañ ko bokk seen sante suñu borom loolu lu am solo la. Hmm. Euh, tabarkalla. que mooy si kuréel ci sa laaj bu am solo la. tabarkalla tabarkalla mu mel ne kon su ma la déggee Bass Mbacké. Hmm. Euh, charge bu rëy bu rëy la. Hmm. ndax daañu la laaj yow mi tànn. kii lu tax nga tànn ko. lu tax nga jox ko doole. léegi kon tànn politique ku ni àdduna la yam rek. léegi xamoo kon li xew. tabarkalla am na ñu ni ne mbirum àdduna dong la. loolu tubaab bi moo ñu koy gëmloo. voilà te bañ nag ba léegi dañ naan. kilifa diine kilifa aada yi. Mhm. mu mel ni kon ñi yëngu ci politique bi kon dafa mel lépp rek fii lay am. Mhm. li aada ay agul feneen. Mhm. fi ñu jëm léegi ci ci ma relance waat laaj bala suñu mbàkkee jël. léegi nag ñi nga xam te ñoo nekk ci pouvoir spirituel. ñoo xam te ne seen pouvoir doo dégg ex même boo génn àdduna tam xalifa rek la ñuy wax. wala imaam itam même bu fi nekk itam imaam la wax ba léegi day continuer. sëñ noonu imaam noonu ñooñu nga xamante ne seen pouvoir moom jógewul ci ay carte ki élection te ñu bokk ci réew mi kañ lañu war a àddu mhm. saa wu réew mi tolluwaan fii jërëjëf euh, xam nga ñoom hmm. àddu gi du duggandoo hmm. ci géew bi waxandoog ñoom hmm. àddu gi mooy dañu wóolu aw nit mel ni par exemple ñu ne wóolu nañ diw comme moom mi ngi àddu ni ngi àddu moo tax ñiy àddu lu mel ni imaam yeeg parce ñoom seen yooyu mm-hmm. ñoo leen war a jege ji ba ñuy wóolu leen dégg seen kàddu bu ñu àddoo àddu seen tur mm-hmm. waaye ñoom ñëpp mënuñoo àddoondoo mm-hmm. ñoom ñëpp ñoo waxandoo waaye daal bu amee groupe bu jóg di ca wax muy fardu fardu kifa yi saqata anil baaxin bu ñoom ñëpp noppee nag àdduna tukki <laughs> waaw jërëjëf sëñ Mbacke am na solo am na solo oustaz ci noonu ngeen séddalee xaaj yi e, ñi ne ci pénc mi mm. e, ak itam waxtaan wi ni mu ñëwee ci waxtu wi nga xam ne soxla nañ ko te suñ wàllu oustaz itam am ci solo lool di wàllu daara ji mën naa ko tuddee noonu mm-hmm. e, ñoom itam daa mel ne léeg-léeg daa am ci moment yuñ leen di soxla ak yu ñu leen du soxla mm-hmm. jamono joo xam ne buñ ci tollee réew mépp dañ ñaan na sëriñ si wax mm-hmm. na waa daara ji wax waa ana imaam yi am nag foo xam ne buñ fa tollee moom bu imaam waxee sax ñu ne ah imaam nag moom loolu moom na ci génn na ci nàngam ndax daa am ci ñu war a wax ak yu ñu wërta wax ak jamono ju ñu war a waxee ak ju ñu war a xam nga ñoom léeg-léeg dañ leen di loo pour laye seeni wax hmm. waaye duñ leen waxloo pour jëfe seeni wax hmm. ah hmm. dëgg la tafsir ma ba jox ba dafa ma sa yónnee ci benn jenn jenn jawrin wala benn buur wax ko ne ko nàngam kat bëgguma ko ci penc ma la nangam war taam mm-hmm. mu ne ko ah tafsir suq ñu defal nga def bàyyil nga bàyyi mm-hmm. waaw nga ñuy digal ak tere waaw ñun waaw mu ngoog ñun suq ñoog yow loolu mm-hmm. liñ suq ak yow mooy bay tibb ca may la <laughs> wala yari fas jàpp ca fas may la loolu leen suq ak yow si moo tax léeg-léeg mel ni boo dégg ñu naan sëriñ si nañu wax mooy dañoo bëgg ñu wax ba ñu mën a làqoo seen wax mm-hmm. jëm ci ñi nga xam ne ñoom lañ jëm loolu rek lañ ciy bëgg mm-hmm. waaye nañ wax ji ñaare léeg-léeg nañ wax ñu naa ne ah nañ nangam kon nañ teg ci suuf politique day am ay niti xam-xam ñu ànd ak nguur ak niti xam-xam yu àndut ngóor mm-hmm. boo seetloo sax ci nettali histoire yeeg taarix yeeg yooyu da ngay dégg sax ñu ne xadis yi eh, ñii dañ ko sos ndax mm, liñ faroon ak eh, waa kër ya ñii dañ ko defaloon faveur ndax bëggoon a favoriser Abu Sufyaan yu deme noonu mm-hmm. li tax ma wax loolu jamono ji ñu toll daa am borom xam-xam yoo xam ne bu ñu waxee ñu ne ah ñii de moom suñ bi pale bi lañ faral mm-hmm. maanaam borom xam-xam yi buur mm-hmm. ni koy gisee ci Arabie Saoudite di ko gis ci yeneen réew yi ndax loolu daa war a dem nag ba influencer julli di ci seen déggéenu diine wala euh, jërëjëf ci laaj bu am solo boobu ki nga xam ne dafa nekk boroom xam dañoo bëggoon mu am éditorial lu dëggu dëggu nga xam ne su ci xasee nekk ku ci nekk day jàpp ne moom la faral même su la faralul ku ci nekkut day def ne moom la contre même su ko contre bu am xam nga dañoo am benn directeur li ñuy gis yéen ak moom ak ñun bëriwul muy Babacar Touré la ko yàlla yokk wér eh, kere bi ñuy samp yi nu nekk nii nga xam ne groupe ba bëriwul hmm. leen rek lañ waxoon nanu taxaw fii nun ñii koy sos rëdd yu hmm. fii lañ koy jële jaar fee jëm fee àgg fii hmm. Hmm. yoon woowu nag bu nu ci nekkee léeg-léeg dana toll fof moo baxal ay xeer ñooy yem wala dégg kuy bal léegi nag ku ñemewul dëppal fii léegi ku ñeme nañ dem lal lan la door waxoon kër bu muy dem deqale suñu bàkki kon yooyu ki nga xam ne mooy borom xam-xam bu buñ ko seen ca làng gee mm-hmm. bu ñu ko seen ca làng gee moom mm-hmm. nañ ko seen ci dëgg rek tey mm-hmm. ku mën a àndal bu dëgg jotee mu taxaw féeteeg dëgg jeex na léegi nag su boobaa ki ñëw toog jaar ci dëgg def naan kii man la faral nit ñit ko yëpp dañu wax kii moom la faral bis bu kooku teggee tànkam ci dëgg nag nit ñi jëm ne kii da ko contre mm-hmm. bu fekk yow contrôle kii faraloo kii dëgg nga faral mm-hmm. ki ki ki ànd seeg yow kookoo am sens mm-hmm. kilifite bi kookoo aw ñàkk sens waaw idi xam nga doxalin woowu mën haj boobu suñ mbàkke la ñuy ci borom xam-xam lu am am solo la am na solo imaali <laughs> tubarkal am na solo trop important li nga wax ci wàllu dëggu ak mu mën a mel nag ak lu la ci mën a fekkit rek dëgg rek ay dëgg dëgg rek sa kanam xaqu yaalu wallaay wala yu wala yu ala ali wallaay ndeysaan <laughs> euh, jërëjëf Oustaz ci ci côté boobu tamit boo dégloo ma déglu li nga wax léegi sëñ Mbàkke mhm. ci Lat Joor ak buur ba mu noo waxtaan ko nanga bàyyi leen ko ndax day yàq kii mhm. nanga séqu ñoo yow loolu mhm. waaw euh, léegi itam est-ce que arbitre day bàyyi bañ ko suufleel wala dañ koy suufleel wala day gis suufle parce que tekk yi nga xamante ne moom la ñuy nee moo ko ñaaree ci ndax ñun dañu gëm suñuy suñuy kilifa même kilifa yi léeg-léeg porte wala doomam wala nangam ak nangam su waxee ñaari sax ñi mu faral wala ñi mu waxul lu ko arrange sax ñuy dafa dañ koo jox mu lekk. Mm-hmm. est-ce que loolu war na mën a tax mu ragal suuf la. déedéet nit ki nit ki. Mm. keroog ba Luqmaan wooxee doom ja. Mm. ba wooxee doom ja. Mm. taxaw ca tableau ba ne doom ji toogal ci table banc bi. ne ko jot li ma crée ne ko jot li ma jàngal la lool doom doom doomu jullit bu fi ñëwati ba yomal xiyaam dootu ko fàtte waaye dootu ko fàtte mu ne ko waaw mu ne xeteet daal di koy wërale aw wërngal ne ko yàbbu ne laa tushrik billah loolu mooy sunu leçon tey ne ko tey loolu mooy sunu leçon <laughs> dégg nga uh-huh. moog leçon ba ba wàcc jot mu wàcc hmm. ba mu delsee mu ne te xeer deux daal di koy def ab cercle hmm. yaa bunayya hmm. innaha an taku mithqaala habba min xardal fa takun fi saxra aw fi samawat aw fi l yati biha allah yati biha allah wallahi donc gis nga wërsëg boo dëkkee Castor ba mu yàgg nga tuxu dem escat urbain du tee yàlla xam na ne tuxoo nga kastoor <laughs> yaa yaa ngi yaa ngi léegi ndax yàlla latif la wallaahi latif mooy ku mën a séddale la hmm. xabir mooy ku xam ñi muy séddale fi nekk la hmm. Hmm. waaye yàbb ne mu ne ko wàcc jot na troisième jour euh, muy muy mercredi <laughs> ah. <laughs> mu ne ko yàbb ne aqimis salaam waamur bil maaruf hmm. wanha anil munkar lu mu ko ci tegal wasbir wasbir ala ma asabak hmm. gis nga baatu ma asabak mi hmm. ngi firi boppam léegi Oustaz Alioune tey xamuma boroom xam-xam buñ génn ci YouTube wala ci whatsapp hmm. wala ci fenn ci bunt yooyu hmm. lu dul bi mu waxee hmm. boo liiree commentaire ya gis ku ko wax pàqu maam waaye xas ko saa ko ba ko mbaa wax ko lu mel ni xeme waaye nag alxuraan comme dafa wasbir wasbir alaa maa asaabak waaw ci li ngay wax ci li nga gis day wala wax jurhum <laughs> gis nga waaw gis nga loolu ku dul jëfandikoo wasbir alaa maa asaabak ta wax waaw ndax sa projet vidéo ci te nga koy def. jeex na <laughs> dootoo wax. dootoo wax. <laughs> Ah. te boo dee lire commentaire yooyu dootoo liggéey. macha allah macha allah. am de. te booy lire commentaire yooyu léeg-léeg ñoom ñu bëgg laa tabaxal nit ku bokk te ki nga xam. <laughs> oustaz wax jooj ñuy def ci commentaire yi lu ko indi ndax day fekk ne ak dëgg lay doon léeg ki nit ki ñu wax ko ko wala jamono moo toll foofu rek. déedéet dañ c'est-à-dire xam nga commentaire. Hmm. bokk te saaga. Hmm. commentaire bokkut ak saaga. déedéet commentaire mooy nit ki da nekk mawduu yi. Hmm. cest à li nga wax nii. Hmm. gis naa lu wuuteeg moom. fii laa ko gis point. di wax ci thème bi. waaw mais Oustaz Mbaye dafa mel ni ñun mënuñoo wax ci ab thème bam jeex. waaw ndax boo seetloo même ci politique bi sax. débat boo ci gis rek wala ci internet bi da nga gis ñuy sullil nit loo xamante ne jotuwut ak li ñuy wax dara. jeex jeex na jeex na. Mm. loolu moo ne ci penc bi ñuy wax ci pétrole bi yow ngay wax ca euh, ci ndaw su waa doon génne fu mu daan footballé xam nga yow de xam nga nit ki dañ ko bëgg a xam c'est pas mm. ko defal campagne ndax ñu xam la mm. dañ la bëgg a xam waaw doo wax yow yaay kan déedéet nga ne fa bëgg xam nga di wax ci Pape Dieye wallaahi ba mu nekkee Mbacke ba mu nekkee Mbacke. ba mu nekkee Mbacke. kon kon daal wax ci thème bi am na solo. di di sàcc mango jàmbur yi. <laughs> léegi ñun mango yooyu Pape Dieye doon jël ca Côte d'Ivoire. Mm-hmm. lan lan la ci réew mi di jëriñ. dëgg la de dëgg la de kenn xamul. dëgg la de Oustaz Mbaye mi di jaayum poobaram maa yooyu yëpp jotewut ak waxtaan wi dara fi mu ne. <laughs> naan koy xam nga yow sa waay yaa fi daan jaay poobar ak lër <laughs> yi. li muy def cim réew bëriwul. <laughs> wallaahi mooy waral commentaire yooyu nag day bëgg. day mm-hmm. moo waa ji day bëgg. Mm-hmm. tabaxal la keneen nit ku ku ak kii wax. Mm-hmm. nga nekk ci yàgg mu njëriñ ba mu yàgg nga ne ah bi nga ne ah yu was wisu dugg na. waaw waaw dugal na ci wisu. est-ce que dugal na ci yu was wisu. bu la dugalee ci aussi si nag mooy ah man di waa ji bett na ma. waaw ah, ah moo fi def lii. <laughs> dégg nga. yooyu moom moo tax yooyu sëñ Mbacke <laughs> lu ca lay defar. dëgg la deful sax sax. dëgg la dëgg la dëgg la Oustaz Mbaye daa am ko. waaw euh, tax ndax it daa tolloog fi ñuy wax. Mm-hmm. ndax itam Oustaz fi mu ne euh, kilifa gu doon wax wala muy def ay commentaire am di taxaw position ba ñëpp di ko tàccu. Mm-hmm. day mel ne léegi moom falu wala euh, ñu nome ko dara daa nekk léegi lu xaraam ci moom. Mm-hmm. damaa xamul ba xam am penc moom nit daa war a féete woo rek euh, féete ci tuus yi nga xam ne boo ci xasee ba féete fa ngay féete buñ la woowee ne la fal nañ la ministre da ngaa war a bañ buñ la falee conseil da ngaa war a bañ buñ la falee nangam da ngaa war a bañ wala lan moo nekk ci loolu ba ku ci dugg rek ñu xas la euh, ba mujj yàgg mel ni ñëpp dañ koy ragal ba kenn du nangoo liggéey am réew laaj nga lu solo mm-hmm. <laughs> moo tax ba ko di ñaan yàlla mu laltaayal ko mm-hmm. li nga mm-hmm. dañ koy yónni ci na mu gis ne mission bi mënu ko dox moom dong fokk mu am kum sukkandiku mu wër ci am di jàmmam wër ci bokkam wër ci partem ko xebti ya fu ni mu wër fa gisul ku gën a man li muy def nii kii mu bokkal benn yaay wala ndey ak baay muy Haaruna lu mu ko wax mhm. wajaal lii wasiiran lu mu ci teg min ahli mhm. kan haaruna lu ngeen bokk axi maanaam <laughs> mooy ki mu tànn ni mu ko tànni mhm. xoolal rek suñ bàkkee lu mu ko wax noonu <laughs> daf ne yàlla ginnaaw bi mu ko ñaanee jumtukaay yi boppam yi daf na ko damaa bëgg nga wutal ma wasiir wasiir benn ministre wasiir ci baatu ba arab koo xam ne kii day jàpp ci li may jàpp mhm. Mhm. di def ci li may def te dañuy déggoo mhm. mu ne ko wasiir bi nag min ahli ñu bokk ci waaw <laughs> min ahli min ahli mooy samay bokk laa ko bëgg ah Moussa ngi fali mbokkam di waaw ku ko daan ne ko nag Haaruna <laughs> nommé ma Haaruna waaw frère waaw mu ne ko axi <laughs> ah, ah la ilaha illallah Hmm. acca ba nga daaneel waaw <laughs> dégg nga mhm. gis na sëñ Mbàkke foofu hmm. Hmm. ñun dañuy bëgg a tabax soo ko dee seetlu ñaari yëf jullit boo xam ne buñ ne politique mu ne mukk buñ ne tariixa mu ne mukk lu ñu wax mu ne mukk ba noppi nag bëgg a nekk jullit bi nekk ci biir suñ biir yi kooku ni mu naqaree tabax kooku mën ko tabax <laughs> loolu la nit koo xam ne ki dañ ko bëgg a tabax du politique du xam ñooñ politique. Mhm. du xam ñooñ tasawuf. Mhm. du xam ñooñ nangam. bëgg ay rek. maanaam lu munul nekk daal ñun lañ bëgg a def li gën a gàtt. Mhm. mënta nekk waaw. léegi nag su boobaa kon bu ñu ne fal nañu oustaz El Mbaye nangam ñu naan foofu la jëmoon. alors loolu daa mel ni fi mu ne daal yàgg nañ ko loolu daal moo war a tëj loolu eh, ñëpp nag ko eh, war a jaaxal ñëpp. léegi su boobaa. Mm. nit ki buñ ne ko kaay def nangam. Hmm. loolu mu man na ko def léegi nag kuñ fal da nga soppeeku maanaam waa ji ki mu doonoon biñ ko falee da ko dul doonati daal day dugg ca foofu pare doon keneen waaw cara bañ na hmm. est ce que looloo tax ñu ragal ko Abdoulatif Coulibaly lu tax léegi bindatoo hmm. Abdoulatif Coulibaly yàlla ko yàlla yokk wér amiin amiin lu tax bindatoo amiin ne dama doon bind naan nangam baaxut ñu ñëw ne ma loolu baaxut kaay nga baaxal ko léegi lu may bind ah. loolu hmm. la loolu la ko lay ah, c'est bien sûr est-ce que lay wi nag oustaz itam ma nekk naa mën naa convaincre man de lay wi am naa ci xalaat lay wi moom defe na maa convaincre ah, ah, am nga ci xalaat mais hmm. monsieur le ministre <laughs> <laughs> lay wi moom defe na maa convaincre <laughs> hmm. nga naan saako saako saako gerte bi feesut saako yi ngeen di duy dafa feesut ñun la kaay sol saako yi looy mais mais oustaz itam du waa ji du natt ndax man sama dem fa sol na saako yi wala euh, féete ci bitim moo gën ndax oustaz bari na ñoo xam ne oustaz it bi ñu wax liñ doon wax bañ duggee ci biir lañ doon wax daa wéy di am te déggatuñ leen ñu wax ko te defu ñu yu ko dindi waaye dañ ne xiim naan la da ngaa comprendre rek système bi laak li ci biir nga xamut ak léegi léegi tey suñu jékki-jékki ne euh, Mouhamed si Tunkara waaw jël nañ ko ci. conseil di ko conseil. Mhm. léegi jàpp ne moom kon daa war a def daa war a toog ne leen ñëwuma. Mhm. waaw léegi loolu mu naan baaxutoon baaxutoon ñu ne ko kaay léeg jéem ci. Mhm. waaw mais euh, euh, nga nag Oustaz euh, Oustaz Mbaye baal ma est que loolu xam nga Oustaz ne daa mel ni ci wàllu politique ak yooyu. maanaam pour nga maîtriser nit ki. li ci gën a gaaw mooy nga def ko ab conseil ndax bi nga ko falee conseiller léegi wax nga ko ne sañutoo wax ci mbedd mi ndax li may wax man nga ko sañ a wax. léegi ñëwal di ma ko wax te boo te boo ko waxee mu bañ koo jëfe it hmm. eh, maanaam ak ak mu jëfe ko moo yem ci moom maanaam moom maîtriser na la rek jeex na donte falu gi moom kenn du ne bul dem eh, waaye nag dem gi itam oustaz ndax am na njariñ daal loolu lenn lenn lenn la ci commentaire benn groupe benn groupe waaw man noonu la bëgg a wax sax ah. parce loolu la benn lenn la ci commentaire benn groupe mais benn hmm. groupe bi nanga baaxul nanga baaxul mun la hmm. kaay dañuy nangu comme indi nañ la ne la kaay nga def ko yaa nga cay def beneen groupe loolu la wax man daal oustaz vraiment léeg-léeg sa sa sa hmm. a ñàkk ma gis façon façon façon commentaire ak façon sikkal ak façon chronique yoo xamante ne nit ki da koy def jàpp ma ne kooku war naa mën a dem dugg ci biir système boobu ndax ndax nam fa taxawee la mu la mu sikkal ak duggam fa daa weddi la mu waxoon démb lépp maanaam lim ñawoon lépp da ko tiri ba noppi dugg ci biir donte dugg gi nag moom jaaxal na ma nan la ko nit mën a bañe groupe boobu hmm. seen gisin wu gisin wu am solo <laughs> daal demal te ñëw mbokk bi leen toxal seen ak déglu fañ jëm duñu fa yàgg incha allah ay yëgle la ak partenaires yeeg ñoom seen yooyu jërë ngeen jëf auzu billaahi mina sheytaani rajiim asalaamaaleykum mbokk jullit yi association Ali Imran ci njiitu oustaz Alioune Sall moo yëgal mbokk jullit yëpp daje bi nga xam ne fas yéene nañ ko amal dimanche ñaar fukki fan ci weeru janvier ci fi nga xam ne moom moo di terrain bu kastoor li wundu daje bi nag mooy fas yéene def ay ñaan ñaanal Sénégal ñaanal réew mi waaye tamit nag def collecte de fonds ngir jëmale ko ci daara ji nga xam ne moo nekk ca barrage bu Jama te ñu fas yéene ko taxawal foofu ngir jàngal xale yi alxuraanul karim loolu mooy daje bi nga xam ne association Ali Imran ci njiitu oustaz Alioune Sall dina ko amal dimanche le 20 janvier ci terrain bu Castor ñuy ñaan mbokk jullit yépp ñu ñëw fa su ko defee nag ñu ànd ñaanal suñu réew ñaanal kilifa yi fi nekk waaye itamit ñaanal suñu bopp fàttali leen itamit ne daañu amal collecte de fonds ngir door nag daara ji nga xam ne mooy Ali Imran te ñu fas yéene ko amal ci barrage bu Jamaa kon woote baa ngi mu jóge ci association Ali Imran ci njiitu oustaz Alioune Sall ñu di ko yëgal mbokk jullit yëpp dimanche bu 9h jotee ci terrain bu Castor asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. asalaamualeykum wa rahmatullahi mbokki jullit yi selilu Ali Imran ba nekk ca sangal kaam ak li ko wër. ci njiital imaam Ali Ba ñoo leen di yëgal conférence bi ñuy amal at mu jot ren ñu jàpp ko samedi le 19 janvier incha allahu taala sangal Sangalkam bu 16h jotee ci la ñuy amal conférence ba thème ba ñu war a waxtaanee mooy sóorat alxujuraat war ko firi faram-fàcce ko indi at yi nga xam ne moo nekk ci biir saar woowu oustaz Alioune Sall bu rajo Sud FM mooy taxawee waxtaan wa conférence ba nag danañ ko amal ci kilifteefuk ministre biñ dénk wàllu napp gi di Omar Gueye bàyyi ndayale conférence ba Serigne Mouhamad Mbacke ndayale ko soxna Biti Ba di ci woo mbokki jullit yëpp soppe yi ak am di jàmm yi selili Ali Imran yi soppe Oustaz Alioune Sall yi ca Sangalkam lay doon samedi le 19 janvier incha allahu taala bu 16h jotee asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. aouzu billahi min sheytaani rajim asalaamualeykum mbokki jullit yi ñu ngi ñëw ngir yëgal leen xew-xew bu mag muy conférence. bu mag ak oustaz Alioune Sall mu fas yéene dem nag seeti ñi nga xam ne mooy mbooloo moomu dëkkee ci yëmbal route de Boune ci quartier Afia 5 ca deuxième étage ñooy ànd nag fas yéene dalal oustaz Alioune Sall mu waxtaanal leen li nga xam ne moo di àq dëkkandoo muy thème bu am solo boo xam ne képp ko jullit war nga caa ñëw déglu ko ngir xam lii nga xam ne diine wax na ko ci incha allah oustaz Alioune Sall dina leen ko wax ba mu leer. kon ñu di ko yëgal mbokk jullit yëpp ñu fàttali leen ko rek incha allah mu ngi am le 27 janvier bu 16h jotee foofu ci quartier Afia ci yëmbal route de Boune kon ñi di ko yëgal mbokk jullit yëpp rawatina ñi nga xam ne ñoo dëkk ci yëmbal ak li ko wër képp ku nekk si banlieue bi incha allah oustaz Alioune Sall dina fa ñëw waxtaanal leen ci àq dëkkandoo kon ñu ngi ñaan ñëpp ñu ñëw fekkee ko asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. aousubillahi mina sheytaani rajim asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki sénégal daara al misbaax ci jiitu sëriñ mbàkke silla bu rajo sud fm mooy yëgal mbokki jullit yépp conférence bi nga xam ne at mu jot daf koy amal ren incha allah ñu jàpp ko samd juróom-ñeenti fan ci weeru février ci terrain basket bi nga xam ne moo nekk ci liberté 3 ren nag mooy doon ñaareelu édition bi muy bés boo xam ne nag nañ ko amal ci teewaayu marraine bi di Adja Aram Thiandoum di ko yëgal nag mbokk jullit yëpp muy bés boo xam ne nag sëriñ Mbàkke sila ak daara jii di Al Misbah di ko yëgal nag xalif yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal yëpp ak seeni njaboot di ci sàkku seen ñaan ak seen teewaay di ko yëgal itamit képp koo xam ne da nga yor daara ci biir réew mi wala ngay ndongo daara wala ngay safoo alxuraanul karim sëriñ Mbàkke Sylla mu ngi la yëgal bés boobu nga xam ne moo di bésu daara Al Misbah danañ ci waxtaanee nag thème bu am solo muy njëriñu alxuraanul karim ci dundu julit bi te ki ko fas yéene waxtaanee di oustaz Alioune Sall bu Ali Imran ak bu Sud FM seen rajo modérateur bi nag di oustaz Mouhamadou Lamine Dramé bu 2STV programme ni lañ koy tëralee bu 16h jotee ci la ñuy door conférence bi su ko defee nag 17h ñu daal di taxaw julli suñu jullee ba noppi wéyal waxtaan wi ba timis jot ñu julliwaat fa doog a ñaan nag tàqalikoo loolu mooy programme ñaareelu édition bi Serigne Mbacke Sylla ànd ak daara ji yëpp muy daara al misbaax di sàkku nag teewaayu Cheikh Ahmed Badawi moom Serigne Fallou Mbacke Serigne Bamba Mbacke moom Baye Lahat Mbacke Serigne Abdou Mbacke moom Baye Cheikh Khady Mbacke Cheikh Mohamed Fadel Ka Bouguette Ardo ak imaam Ousmane Niang ca Tiwaawoon ak képp kuy borom xam-xam kon bés baa ngi noonu muy bésu daara Al Misbah ci njiitu Serigne Mbacke Sylla ñu di ko yëgal mbokk julit yépp le 9 février asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa Muhammad ya habibi ya Muhammad auzu billahi mina shaytaani rajim asalaamaaleykum mbokk jurit yi bés bi ngeen doon xaar muy bésu soppe nabi ci jiitu Assane Diop mu Iran Ndao bés boobu nag ñu fàttali leen ne incha allah yegg si na ndax dimanche bii ñu dëgmal la muy tombé fukki fan ak ñett le 13 janvier. ci jumaawu parcelle unité 2 muy bés boo xam ne nag ñu ko fas yéenee taxaw muy ñaari borom xam-xam yu yàlla baaxal Cheikh Ibrahima Badiane di Iran Ndao bu daaray suñu maam Seydi Aboubacar si te di def émission ci seen TV ànd ak oustaz Alioune sàll bu Ali Imran ak rajo Sud FM muy bés boo xam ne nag waa cellule bu golf soppee nabi ci njiitu Assane Diop mu Iran Ndaw dañu jël bés bi nag tuddee ko président de la république Macky Sall ak soxnaam soxna Mariam fay Sall Alioune Sall di maire bu Géejawaay ak soxna Aïda Sow Diawara di maire bu golf Assane Diop jëlaat bés bi nga xam ne nag mooy bésu sopp nabi dellawaat ko boromam mu di Modou caw bu Petroflamme Serigne Modou Thiaw sa bés bi dellu si na muy bésu sopp bi ci njiitu Assane Diop mu Iran Ndaw di ko yëgal tamit imam Moustapha Niang bu Sirmang Voyage yaay Zeynab Sow yaayu Daara soxna Ndeye Fatou Diallo Lat Diop di responsable politique Assane Diop ànd ak waa cellule bi yëpp di ko yëgal ki nga xam ne nag moo di Mamadou Dia xaritam wala réem kilifa ca Galaya Voyage ku yàlla baaxal ku mën a sonn ci diine ak doomu aadama sooy bu Ndiaye di entrepreneur di ko yëgal itamit ki nga xam ne moo di Cheikh Gaye waa soppee na bi nag ci jiitu Assane Diop jël bés bi nag bare ne ko ki nga xam ne mooy borom bés bi moom moom lépp di Ibrahima Badiane di Iran Ndaw ànd ak magam ji di oustaz Alioune Sall. waaw asalaamaaleykum mbokki Sénégal. Eh, dikkati nañ tey nag di leen fàttali suñu bésu bopp. war a doon le 13 janvier incha allah. ki koy def nag mooy sunu kilifa muy oustaz Alioune Sall. ànd ci ak wóllëre muy Iran Ndaw ñu ngi ñaan ñëpp ñu waajal ko nag képp koo xam daa soppe Oustaz Alioune Sall nga baa nga nekk suñu soppe ñu ngi lay ñaan ñun ñëpp ñu bokkandoo daje parcelle le 13 janvier ma di ko wax nag turu Oustaz Alioune Sall ak sama tur ak turu Mbàkke ñu ngi yëgal ñëpp le 13 janvier ca parcelle conférence incha allah. kooku ngeen dégg nag mooy Ibrahima Badiane di Iran Ndaw di kenn ci Assane Diop di wëllëreem di soppeem kon Cheikh Ibrahima Badiane Iran Ndaw sa bés a ngoog yaag sa mag ji di oustaz Alioune Sall. ci njiitu Assane Diop mu Iran Ndaw ànd ak xaritam wala rem bi nga xam ne moo koy jàppale ci liggéey bi di Moustapha Mbaye 313 mu ànd ci lool nag ak Pastef fas yéene dalal ñëpp nag ci jumaa ji ci parcelle Assainies dimanche le 13 janvier 2019 képp koo xam ne bëgg nga ci loolu leer mën nga jokkoo ak moom Assane Diop ci 77 640 68 25 77 640 68 25. kon bés baa ngi noonu asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Ah, jërë ngeen jëf kon ci ànd beeg si FM seen rajo ca tabarakallahu jërë ngeen jëf partenaires yi jërë ngeen jëf ñi yëgle ah, Oustaz Alioune wax naa ne ku ci sa mbaam réer sax rek na nga ñëw ci Sud FM seen rajo nga wax ne sama mbaam mi réer na talaata ji ñu génn ku ko far yaa ko moom. <laughs> moom de daa mel ne ñu ngi dégg bu baax. waaw dégg waaw noonu la tabarkàlla. waaw ah, yàlla itam ñoom daal ak cant ak ngërëm ñeel na leen daal. rek nag tey woote nag. daa koy woote ku nekk ku la wuy si nga bëgg. acca léegi kon li ci teg rek mooy xam na ne ngi fàttali ñu. waaw ñu yi jaan am na sax kuy fëgg nii. am na kuy fëgg ci 88 Mbacke. 628. 98 98. ñaar ko bitim réew. 33 841 salaam wa rahmatulah. yaa Oustaz Alioune. xulan yu si banaa ñu ngi leen di ziare suñu awa ba da <laughs> xul lañu si banaa illa ma kataba laahu lana wa mawlaana wa alallaahi mawlaana wa alallaahi fa tawakkalil muminuun sadaqallaahu al-aziim waaw tey moom suba gi baat bi daa leer de xam naa ustaas ji la ñuy wax tey foo xëyee ah tey de waaw macha allah <laughs> ñu ngi joxe ziaru ahlu Sangalkam ak Malika ak so soppe yëpp su kay na tan ñaa ngi leen di nuyu ñu ngi koy fay bu baax waaw ak mbokk yi ñu gëj a dégg yëpp ndeysaan ndeysaan sant yàlla di jéggulu tim ci Euh, géej a déggante bi. dëgg la dëgg la waaw ndax dafa am lu ñu diggee woon. Mm-hmm. ni bu ñu occupé émission bi na ñuy bàyyi itam ñeneen ñi ñuy dugg di laaj. ndeysaan euh, loolu sabab la ci ak liggéey bu xatti bi. ndeysaan waaye ñu ngi leen di sant di leen ñaanal di leen gërëm ci taxaw bi. wallaay ndeysaan jërëjëf di leen ñaanal yàlla la na leen yàlla musal ci ndox. jërëjëf euh, jërëjëf ñu ngi ci jamono boo xam ni pente glissante la dafa xaw a doy waar tam nga glissé. Mm-hmm, mm-hmm. te ñun bu ñu glissé amul problème mais yéen ñi nga xam ni ñëpp leen di déglu. sopp leen farfu nekk. Mhm. yal na leen yàlla dimbali ba. amiin yaa ngeen am du ngeen am benn dog-dog. amiin laay Maxtaar loolu leen koy ñaana ñu traversé situation yi ba yàlla defal ñu jàmm. jërëjëf jërëjëf incha kontaan nañu vraiment ci émission beeg ni ñuy taxawu. inna laa maanaa euh, jërëjëf amoon naa laaj nag. waaw. Euh, benn bi dafa jëm ci euh, taxawaayu xome ni ci politique am na lu ñu ci ustaas jàngaloon. Mhm. waaw bu ñu ci mënee ñëwal tuuti daal. Mhm. dina bitim. Euh, laaj la buñ ma yóbbante kii dafay julli. Hmm. Euh, daal di ëbbulu mus li ci seytaane nee na nag bi muy bi muy wax onze billahi mina seytaane rajim ci biir julli gi tayu ko. Hmm. mus na ci seytaane muy laaj comme baat yu nu tudd la. Hmm. daf ko war a al baax da salaam am yooyu dañ ko koy baal. waaw mu loolu daal ñaar yooyu moo doon laaj bi di leen sant di leen gërëm. joxe yaaru tànn lay ak ñepp. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulahi wa barakaatu Sëñ Mbàkke. Ah, ak Aliou Ba sunu mbokk yi nag ci Sàngalkam dégg nañu publicité bi jërëjëf. <laughs> tubarkalla ñu <laughs> kooku ñu jaajëfal ko excellent salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. bisimilah bisimilah. Oustaz Mbacke ñu ngi lay nuyu. jërëjëf ñu ngi lay fay. di nuyu sa cousin Oustaz Alioune Mbaye. Diallo na nga def Diallo <laughs> Moussa. waaw di nuyu sàgg bi Oustaz jërëjëf mi ngi lay fay mi ngi lay fay. amin gudd fan ak wér. amin amin yàlla ñu ko yàlla boole. amin yaa rabbi te jàmm rek ñaanu docteur yi moom duñ ci teg dara dañuy bàyyi <laughs> waaw docteur de daa mel ni jàmbaal am ñaan kat te ñaanal nañ leen li leen docteur ñaanal amin amin yàlla na ko yàlla nangu di ñaanalaale sponsor yi jërëjëf jërëjëf suñu borom yokk seen chiffre d'affaires amin amin mën a taxawee émission bi amin yaa rabbal alamin amin tey nag ñaari laaj rek la ñu indi woon waaw euh, benn bi day dem ci alxuraan surtout Luqman surtout Luqman waaw ci fin bi 34 mhm. 33 34. 33 34. waaw. Mhm. beneen bi dafa am ku ko yóbbante. Mhm. mu ne day laajte ndax nit bu fekkee ni dañ la takkal ndombal tànk. Mhm. nga dem négocier ji benn marché maanaam. ñu jox la ci lu ñu naan pot de vin. ndax dagat na nga lekk ko. pot de vin mooy lan. maanaam ñu neexal la ci ah, dara daal daa xaw a tubaab ci man di waa waaw <laughs> d'accord <laughs> ñu ne ñu neexal la ci <laughs> dara. loo xam ni bokkut ak li ñu la yónnee ndax bokkul dagat na nga lekk. d'accord. waaw loolu la doon laaj jërëjëf. jërëjëf jërëjëf jërëjëf Moussa Diallo Ima lii suñu xarit boobu dëkk Sànnaar di wootee Ndakaaru am na ko teew. walaay ndeysaan asalaamaaleykum. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah Naar Ndiaye. waaw jërëjëf Saal. ñu lay jaare. ñu lay jaare Naar. waaw ñu lay yàlla dolli jàmm. Paris ana Paris. waaw ñëpp a ngi si jàmm ñu ngi bu baax ñu lay nuyu di la jaare bu gën a bare bare. jërëjëf ana gaa ñi. di rafetlu bu ñëpp a ngi si jàmm ñu ngi lay jaare ñëpp ñu ngi jaare ñu ngi leen di nuyu samay nuyoo waaw ñu ngi am bu baax baax ci biir mi ni muy doxee. jërëjëf jërëjëf di jaare Oustaz Alioune Sall euh, bu baax a baax a baax. eh ñu lay delloo ziar yàlla yàggal seen taxawaay ci penc mi. Mm-hmm. yàlla doon seen xam-xam aar leen sàmm leen ba lépp lu ngeen la mu def ci biir lislaam ñu yeggale ko ci jàmm ak salaam waay. amiin amiin amiin. jërëjëf man damaa amoon nag benn laaj ko man ak beneen laaj xam ne sama mbokkam taal bi moom ma ko yóbbante. Mm-hmm. benn bi mooy dama doon laaj boo xam ndax jullit bi moom ba amee këram du ko def location am na droit luyee ko ku dul jullit. d'accord waaw. waaw beneen bi encore sama mbokkam taal bi moom ma ko yóbbante mooy nag ci wàllu sëy la ñun loolu koy laaj. mu ndax te day seetlu saa su ne bu ñuy mayee sëy daal ay tàkkusaan dem ci lañ koy def te bu ñuy joxe nit ki tam ñu koy heure waxtu yooyu daal lañ koy def. mu ni euh, mu ni bi ñuy may bi ñuy mayee bi daal di mayee kenn mu war a sëy ak yooyu. Hmm. di donte tàkkusaan ak koy def. Hmm. te soxna kooku nag buy sëy guddi gi lay dem dañ koy lañ koy waajal mu dem. Hmm. te gisagul daal suba bi suba teel comme ça ñu julli si woo ba rek maye nit ki waajal ko bu sëy mu ne nag loolu lan la dañ koo taam wala euh, lu tax ñuy def ñu koy doxalee noonu daal. Mhm. bëggoon ci ay leeral. jërëjëf jërëjëf. Euh, euh, leer na de man leer na. laaj ñu naan ñu kay. <laughs> waaw jërëjëf jërëjëf Naar. nuyu ma door si laaj suñu mbokk yi baax Xalilulaay Kan tabarakallahu Xalilulaay Kan Paris. Mm-hmm. waa kay ñoo ngi leen di nuyu ñoom waa diaspora bi yëpp di bëgg ci ni ñuy bëggee ci jotaay bi ak groupe whatsapp yooyu taxawaay yu am solo yooyu mbokk mi salaamaaleykum. waaleykum salaam wa bisimilah jërëjëf jërëjëf. man la taalibe Cheikh Papa Cheikh Sidi Mokhtar. nam namoon nañ la di soxna si. waaw maa leen di bu baax. da ngaa jëloon conseil. <laughs> déedéet déedéet fu ma toll nag maa ngi leen di déglu nag. fu ma toll bu ñu wootee bu ñu wootewul. ndeysaan. maa ngi leen di ziar bu baax. jëf jërëjëf jëf dama amoon benn euh, ñaari laaj benn bi mooy comme ci wàllu élection lañ jëm. waaw ki nga xam ne dafa nam voté. Hmm. ci yan critère la war a basé woo pour tànn njiiti réew. macha laaj bi mooy euh, affaire journaliste saoudien boobu ñu rayoon. Hmm. ban jàngat ngeen am ci taxawaayu réewu àdduna bi rawatina réewu jullit yi. Hmm. seen tekkaaral bi ñu tekkaaral ci mbir moomu. Hmm. gannaaw ba waa Turquie joxañi joxañ bu leer euh, Arabie Saoudite daal seen loxo génnul ci mbir mi. waa kay maa ngi leen di nuyu di leen ziar di jéggalu nag ci kàddu yi. jërëjëf waa kay jërëjëf. jërëjëf jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal suñu jigéen boobu taalibe seex la nee na te soppeeb seex Sidil Maxtaar rahmatulah aleyhi jëlal kooku imaam Ali. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ Aliou. ma. <laughs> man la de ngeen def. <laughs> ba la sëñ Mbacke am na ñu mu war a laaj. Ah, ok ah, ok sëñ naka naka yi. waaw ñoo ngi eh, eh, mi ngi neex ba léegi wala. waaw waaw waaw naqariwul Sénégal moom du naqari moom. ah waaye ngan gi ruusagul daal. dé ruus bi kay yàgg na. ah ngan ngi ruus na. <laughs> waaye nag soxna si dégg déggal na leen nag delloo si la ko. ah waaw ne ko bañ koo ruusal rek mu ruus ñu ci daal. dé ruusal ko mais man damaa dégg ñu ne xam nga fan yee ci gannaaw. Hmm. waaw kii di la wax daal da ngaa bokk ci xaw club bi nga xam ne. xaw ma waaw groupe groupe Allahu Wahidun <laughs> Allahu Wahidun. waaw mais xanaa yow doo baawal bool. ah kay. ah mais bool bool ndëg bokk ci yooyu. ah doy na waar de xanaa bëgg a jàppale kon ña ña ca bokk rek. <laughs> non non non non bool bool du bokk ci yooyu benn. yow daal fi mu ne li ma la bëgg a régleel mooy. Ah. man yéen Modou Modou yi fi ma leen di ñee mooy bu ngeen di bëgg a ñëw. ah ci la soxna yi tàmbulee ñawlu ji tàmbulee defaru di leen waajal seenu waajtaay daal jar na lu ne moom. jar na tukki de bala ngaa ñëwee Modou Modou nag laaj ko. <laughs> ah waaw baax na. defal sondage ci Modou Modou. d' accord dinaa def sondage. wallaahi waaw maa ngi leen di nuyu bu baax na. jërëjëf jërëjëf. di nuyu oustaz ak yéen ñëpp. jërëjëf jërëjëf. waaw yàlla yàlla guddal seen fan ñu baax ngeen. amiin jërëjëf jërëjëf. vraiment ñu baax ñu ay sociologue ngeen yoo xam ne yéen a ngi def loo xam ne xamu leen ko sax. ndeysaan ndeysaan li yéen a ngi dalal xel yi léegi maa ngi nuyu waa Ndiang Ba Mbodj yëpp. jërëjëf ñu ngi leen di fay. ah rawatina Ibrahima Mbodj ak soxnaam Mame Bousso. ndeysaan jërëjëf. waaw yi ma bëggoon a laaj nag moom mooy ni dafa am xam nga ay yi nga xam ne duñ nit daal ca yàlla bind leen. Mm-hmm. waa ñooñu mais mais ban nga ci war a rey bi nga xam ne mën nga koo rey ca ca ca du dara mën nga ko romb rek rey ko. d'accord waaw bi ci def nag moom mooy ñi nga xam ne dañuy war a dugg si huit heures wala yooyu xaar ba neuf heures wala dix heures ñu door ñëw. Hmm. waaw mais ñooñu est-ce que li ñu leen di fay riba la wala. d'accord ça dina ci ñëw waaw kay jërëjëf maa leen di nuyu jërëjëf yàlla na yàlla guddal seen fan ca def ci réew Sénégal jàmm. amin waaw kay jërëjëf. jërëjëf ñu ñu waa Njàmbur. am na solo yu maal yi suñu xarit bàyyi noonu di yat ba mbooj ñang ba mbooj. <laughs> ak baax. waaw tukki ba ñëw ak xuloo bay door a jubóo. Ah, ak a neex. <laughs> jëlal asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw Dora. Mbaye noo def. ah si la Maxtaar. bàyyi nañu si jàmm. Ah, ana Paris. naka euh, Oustaz a ngi lay nuyu. naka naka Mbacke baa mi si jàmm. mi ngi lay nuyu baax di la fay. Mbacke Mbacke fi ñu ko jàpp jàpp ko foofu rek allahu waahidun. Ah, waaw sama sama daanaka nag kuréel gi tas na waaye. ba léegi maa ngi ñam ñamal rek. ñii <laughs> bu ko tas. ma daanaka nag daanaka. <laughs> <laughs> daanaka. mais mais mais koy jaajëfal ak juma paase dégg nañu ñu demoon a benn ah. xanaa liir liir la guma la article yi jógee Tunisie te ñëw fi wala dégg nga ko bii ma koy liir la sëñ Mbàkke. <laughs> oustaz man xam oustaz xam nga lu ma liir lu ma jàng si li ma jàngal. Ah. on change pas une équipe ki daal yaa ko jàngalee. <laughs> ah baax na équipe bi de équipe bi de noppi nañ koo sensé de fi mu ne président d'honneur la ci def. <laughs> xaw ma moom ci loolu. am nañu président d'honneur am mais mais Dora. maa maa ngi leen di ziar bu baax. <laughs> maa ngi leen di ziar. jërëjëf jërëjëf di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal mbooloo mu jullit. amiin amiin di di di jaajëfal saa ñu ngi dégg keroog fa demoon inauguré benn juma. waaw waaw. yàlla ba bu ba mu nekk mu jëntalu inauguration ci amin amin amin amin amin voilà di di nuyu di nuyu mbokk yëpp vraiment groupe yëpp comme ni ko naar waxee rek sànq ndeysaan waaw di jaay di jaajëfal ñëpp vraiment ndeysaan di di di nuyu waa waa waa Zeyda so Zeynab bu solidarité aussi mm-hmm, mm-hmm. ñu ngi leen nuyu nuyu bu baax a baax a baax di jaajëfal ñëpp vraiment jërëjëf si la jërëjëf jërëjëf waaw maa moon fi rek ñetti laaj yoo xamante ne boor oustaz dimbali ñu si waaw waaw benn bi dañ ma ko yóbbu bon benn bi dañ ko yóbbante mm-hmm. xanaa ma def lu gaaw rek ndax ligne bi. waaw parce benn bi daal mooy. oustaz dama bëggoon naa mu waxal ñu ci charia ak xaqiqa. charia hmm, ak xaqiqa. waaw ñu bëggoon naa daal mu mu mu dimbaluñ ci boobu ak beneen boo xamante ne Moussa bi euh, yonent yàlla Moussa. Hmm. bi ko yàlla ne lan tara nii. Hmm. walaakin boobu mu ci teg laa bëggoon oustaz tekkil ñu ko. voilà mu mu dimbaluñ ci loolu boobu ndax yàlla ndax Moussa gis na yàlla ou pas loolu daal bëggoon naa oustaz jàngal ñu ci. voilà bii nag suñu benn mbokk bu nekk itam bu ñuy wax Baye Ndiaye Guèye. Hmm. moom moo yóbbante woon laaj bi. mu ne naa ko naa ko indil bu ñuy wax ba la dafa nekk suratul xaaxa alxaaxa. bu moom dafa ne sax vingt et un jàpp vingt trois mais man bi ma xoolaatee ci dama ko jëlee ci aaya ci dix neuf bi. suratul di wax waaw dix neuf ba vingt quatre. parce que moom vingt et un vingt trois la mais bi ma xoolee ci laaj bi. Hmm. dama ko mën naa jëlee question bi ci dix neuf aaya dix neuf. indi ko ba ci 24 après li ci des ci ay laaj nga xam naa ba semaine prochaine incha allah. 19 19 muy 19 ba 24 ci sóoratul Xalq. Hmm. ci yàlla di wax waaye moom la utee kitaaboo bi yéen ñi. d'accord ba ci 20 ay 24 bi waaw. merci. jërëjëf Dora Sylla suñu mbokk yu nekk ci diaspora bi Dora Sylla Pape Ndiogou Sall Pape Mor Diaw tabaarkallahu Omar Ndiaye ak Angleterre ak Pape Babacar. salaamaaleykum. <laughs> waaleykum salaam wa rahmatullah. est-ce que. sëriñ Mbacke Sylla. waaw yaaram. Cheikh Abdou Ndiouk. du Cheikh na ngeen def naka waa Italie. ñu ngi bu baax di siyaare jërëjëf ñu ngi lay fay Ndiouk. Oustaz Alioune Sall di leen siyaare bu baax a baax di leen jaajëfal ci mm, allah jërëjëf. dañu ñëw dugg nag waaye wute wuñu. alhamdulilah alhamdulilah. bu baax a baax bu baax a baax di leen ñaanal. jërëjëf jërëjëf. ñoom état nag namm nañ ko lool. incha allah saa si Abdou Ndiouk na namm nañ la ca Italie ayca. waaw nee na moo leen raw fuuf. <laughs> a baax nag. alhamdulilah. ñaan rek dañ doon woote di siyaare tey rafet lu waxtaan wi rek. jërëjëf jërëjëf Ndiouk yàlla na xam naa lu ñu gën a mën a soññ nit eh, a rafetal jikko yeeg kàddu yi rek ñu ñu gën ñu ciy dimbale bu baax a baax. incha allah ndax wax kàddu moom mbir la mu xaw a yéeme moo xam ne ba ko see jëmee kenn moomatu ko. dëgg la. ñu ngi siyaara baax a baax jërëjëf. jërëjëf Cheikh Abdou Ndiouk ñu ngi koy jaajëfal baax di wootee foofu ci Italie. jaajëfal ko bu baax baax su bokk Italie yeeg ñu ngi leen di nuyu baax a baax madame Doucouré ñu ngi koy nuyu te di ko ziar. Adja Ndeye Camara Ndeye Camara. <laughs> ndeysaan ñu ngi koy nuyu. ndeysaan mook euh, groupe suñu xarit yooyu yëpp ndeysaan. dégg nga dégg madame Diallo. madame Diallo déedéet yónnante nañ message ci biir semaine bi. seen groupe bi tas na waaw jàpp ne groupe bi tas na ndeysaan waaye. ba léegi am na lu fay ñuul de xamaluma <laughs> yal na leen yàlla yërëm <laughs> jëlal kooku. asalaamaaleykum. salaam. yaaram na nga doy fay woote. Uh, Ahmadou Ndiaye. Ahmadou Ndiaye. Bargny. Ahmadou Ndiaye Bargny bisimilah. si Ahmadou naka waa Bargny. ñëpp a ci jàmm alhamdulilah. Ndiaye Ndiaye. Uh, dama amoon ñaari laaj yu ma bëggoon laaj. bisimilah. Uh, suratul ashabul kafi. suratul kafi. al waaw almaalu wal banuuna ziinatul xayaati dunya waaw wal baaxiyaatu saalihaatu xayrun inda rabbika tawaaban wa xayru mm-hmm. foofu laa bëggoon euh, misaal bi ñuy def foofu ci euh, ay xale aaya quarante six aaya quarante six ma si leeralal ma ko mm-hmm. bi ma fi mujjee laajte woon na aussi aaya cinquante bi mais mm-hmm. xam naa laaj bi dafa leerul woon parce que dama ne woon sóoratul kaaf ñu ne ma sóoratul kaaf amul naa waroon wax asxaabul kaf yi bu gën a leer. d'accord muy kaf waaw muy kaf aussi 54 bi mm-hmm. euh, ay 54 bi may jégalu. Mm-hmm. mën nañ ma leeral euh, aksara shay'in jàll. jadala jadala 54. 46 ah. mm-hmm. waaw euh, ma 46 yëpp ci wenn saar bi la ñu ngi ko ci nuyu bu baax a baax te di ko ndokkeel ak sarashay in jadala moo tàmbalee ca <laughs> wala xad sarraf na 88 waaw ñu jël kii Oustaz Alioune wuyul sëñ bi. asalaamaaleykum. waaw ñu jël kon ku mujj euh, ñu jël ku mujj asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. Euh, yaaram na nga doon fay ah, waaw. yàlla na yàlla nangu ziar bi maa ngi lay fay nuyoo itam. Abdul Xaadir Sylla. Abdul Xaadir. Sylla na nga def. Sylla Sylla. ay sant yàlla bu baax Oustaz ñoo ngi nuyu waa Port yëpp. nuyu sëñ fàllu Mbacke transitaire. ak suñu seexu naa ridis <laughs> ndeysaan silla silla jàmm rek silla di leen sant te leen gërëm di leen dolli ñaanal alhamdulilah di diglu émission yi di ci am contentement bu baax a baax jërëjëf jërëjëf dégg naa oustaz di wax naan rajo bi àgg na Tamba nag waaw fi mu nekk àgg na Tamba ñu ngi ñaan mu àgg Kédougou te weesu ko incha allah Kédougou ah ndax nekkoon na mhm. xam naa sopp ya nekk lool di bëggee oustaz ndeysaan mhm. wax dëgg yàlla ci laa gën a mën a jàpp oustaz ndax boobu mu am woon di ko ay gore waaye fu ma toll di dégg oustaz oustaz ndeysaan ba yàlla indi ma Ndakaaru nag ndeysaan ma sax ci di ko diglu nag incha allah waaw ah, góor doo ko réccu de waaw baax baax hmm, jërëjëf <laughs> di leen sant di ñaan oustaz Alioune Mbaye ñu ngi koy nuyu moom tamit ndeysaan mii nii de jaare bu baax ndeysaan jërëjëf ah, suñu bàcc hmm. ah ajuma ji di jàll de moom hmm. <laughs> émission bi boo xam naa ne bu fekkoon par semaine dañuy jël leader moom ab yàlla Macky Sall war naa recevoir. ah waaw moom ci boppam mu recevoir ma. moom ci boppam recevoir la. si c'est normal de. Hmm, ndax yàlla oustaz tey ñoo yokk rajo bi <laughs> ku nekk pale na ko yokk waay ah bàyyi yokk leen rajo bi. moom semaine bi yëpp moom la ñuy wax. <laughs> jërëjëf. ndeysaan jërëjëf ndeysaan. waaw xam ñu jëppee ñëw sax kon nga indi ñu koy laaj oustaz. Mm-hmm. ci sóoratu doxaan boobu nga xamante ni bokkoon na ci lekki yoon. Mm-hmm. ñu ciy ñëw oustaz bëgg ñu d' accord sur Duxaan aaya 21 22. 22 waaw jërëjëf. bu baax baax jërëjëf jërëjëf la la xam naa tey ginnaaw ma usé bu ji moom. waaw ah, yaa ko duggaaleel. yaa ko duggaaleel waaw. <laughs> jërëjëf Abdou Khadir. Sylla. merci. <laughs> xam tax ñu sant Sylla baax na. kon nag xaaj li ci tege. waaw kon nag kooku mooy nekk sunu auditeur bi mujj. Mhm. dañ lay bàyyi léegi nga delluwaat ci partenaires yi euh, su ko defee ñu door ñëw ci li teg ci waxtaan incha bu leen toxal seen ak déglu fañ jëm duñu fa yàgg une heure euh, dix heures moo ba teg fanweeri simili ak ñaar. am ñoo xam ne bëgg siiwal seen yëf moo tax mu ñëw di ànd ak ñun tabarakalaw ñii di ci tàmbali bi ñii ci digg bi ñii ci fin bi. rawatina groupe bi nga xam ne ñoom ngeen di dégg léegi ci seen yi ñuy jaay ñu ñuy sago ñu di leen sago dee leen sago yéen itam di dem ca ñoom ca la ñuy jaay te di ca jënd waa jëndoon na ma tabaarkal duutuma defar lu panu mukk fu dul xanaa ma dem ci C3S kii ne man tàngal kafe sax su ma koy def damay dem ba ci lob bu maam jaara ma jënd fa gaz door ca tàngalee mbokk mi noonu su ma demee ba nga xam damay raxas samay bagage damay dem ca ma daar ñu jox ma lu ma raxasi samay bool ak samay ndab mu ne su ma raxasee ba noppi nag damaa gis ne seen karo kor xaadim lu ma ca weer tam du tax karo yo oos wala mu gondulee partenaires yi jàggeen jëf maa ngi leen di bëggee di ngeen dégloo li may bëgg indi da ngeen ci xam dara alkitab bismillahi rahmaani rahim ñoo leen di may tabarakallahu seen émission alkitab 10 heures jot na ba teg 40 simili oustaz Alioune kon lan moo ci tegee jaajëfal la bu baax baax a baax te jaajëfal sponsor yi sëñ Bakki. waaw kay yaakaar naa ni sponsor yi jar nañu ñaanal. jar nañoo ñaanal wallaay ndeysaan. baax a baax a baax. Mhm. ndax kat dëgg yàlla. Mhm. woote ñu wuy si la moom. ndeysaan. kenn mënu koo fay nit. Mhm. wallaay ndeysaan. tabaarkalla yal na yàlla. Euh, sàmm leen. amiin amiin amiin dolli seen chiffre d'affaires. amiin amiin yaa rabbal aalamiin. Euh, ñaanal sunu mag sëñ Aliou Lo. ndeysaan waaw. Aliou day non seulement sponsor waaye xam na daara lu mu laaj. Mhm. mu di ko def. waaw ndax la wërsëg ba ko yàlla may daal. keroog ba ko ñu tuddee fu fu fu ñu war tudd daara ji day. Hmm. dafa na ma yàgg sa kër mën na ko waaw. booy dem daaru mën nga fee jaar mën na ko maa ngi nii. Hmm. jaar fa mu ne ma dégg nga annonce bi ñu wax de ma ne ko dégg naa ko de mu ne ma loolu loo ci xam. Mm-hmm. man ne ko kenn gëmu ko mu ne ma kon baax na. ndeysaan. waaw su ma sañoon ma ne ko mu ne ma bu ñu sponsor ñu ma ciy dégg. Mm-hmm. dañ naan émission ba diina rek. kay mën nañ koo taxaw ma ak yéen nag balaa 2064. allahu akbar. waaw kay dëgg yàlla de. lii nii lépp tabarkàlla. ma nga ca loola de. yàlla moo ñu nekk ñëpp daal. Mm-hmm. Euh, nit nag boo ko xamul nu ma koy defee na mu la def a tax. <laughs> ndeysaan waaw wax dëgg yàlla. ndeysaan loolu daal si bàkki loolu am na solo. dëgg la dëgg la suma jigéen ba di soxna Fat Diagne. Mhm. madame Samb ñu ko fa la ca Port moom tamit ànd ñun ci jotaay bi. wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan waaw kon nag di gërëm waa Karo mm, seen Karo. seen Karo kon Xaadim. Mhm. tabaarkalla euh, mhm. koy nuyu moom itam. di borom yéene nit ko baax. tabaarkalla di nuyu waa nag ban na. waaw ndeysaan waa Madaar. waa Madaar. ak waa Fari industrie ak Fari industrie. waaw tabarkalla ñoom ñëpp rek yàlla yàlla def ci barke te yokk ci barke. gis naa sax nga wenn waar léegi bi ñu paree kii bi <laughs> te loolu da am solo nag. Abdoulaye ndeysaan am na solo lool. waaw waaw mu ngoog. bokki jaar ci buum comme ni ko docteur waxee léegi Alioune Gadiaga ni di xaw a xiddi di may nit ñuy ñuy dugg itam da ciy baax. Mm-hmm. yooyu yëpp ci doom ci sot la bokk. kon docteur ñu ngi lay nuyu baax di nuyu Aliou Ba di nuyu waa Sàngalkam gépp dëkkandoo yooyu le euh, Mbacke ci laaj yi. waaw ñëw ci laaj yi imaal yi ay ca mën nañ cee soobu waaw mhm. mën nañoo sóobu ci laaj yi ginnaaw bi ñu leen jaajëfalee defe naa sëñ Aliou. Gadiaga. <laughs> ah kaamil ba ay ca mën ngaa tàmbulee ci Aliou Gadiaga euh, moom ci laajam bu am solo boobu ñu doon. Mhm. jërëjëf oustaz. Mhm. Euh, docteur Aliou Gadiaga. moo jëkkër jaar ci buum gi mm-hmm. ci laayam jooj ñuy wax qul lan yusiibanaa illaa maa kataba Allaahu lanaa huwa mawlaanaa wa alaa Allaahi falyatawakkalil mu'minuun mutawakkiluun waaw awil mu'minuun waaw falyatawakkalil ko mu ni nag laaj eh, bi muy laaj mooy dafa bëggoon nga dellu siwaatal leen ci taxawaayu xumay ni ci wàllu politique alhamdulilah mm. bismillahi rahmaani rahim subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka antal alimul hakim mm-hmm. eh, al imam xumay ni mm-hmm. Euh, benn sëriñ bu nekkoon ci dëkk bu ñuy Iran yàlla may ko ci wàllu politique lu am solo loo xam ne buñ ko boole woon ak li yàlla may waa Saoudia ci aqida adduna ñoo fi daan malheureusement kee day dem ak lam yor manqué la kee yor kee dem ak lam yor manqué li ki yor moo leen dal ñoom ñaar ñooñu moom nag ci wàllu man tëralinu politique da wax ne sëriñ si mën nañoo ñàkk dem pale waaye nañ fexe ba ñuy dem pale demal leen walla ñu demaale leen ba tax ngay dégg ci réew ma président waaye dégg wilaayatul faqih wilaayatul faqih mooy ki nga xam ne ci moom la ñuy dellu ba daanaka liy dox ca pinc ma ci wàllu politique ci état baag yooyu sax kooku def ci dugal loxoom ba mu saf ca sap macha allah. waaw ba tax bañ leen ambargo cam atam. ba mu wootee jigéen ñi ne kenn ku ne nañu may lamab or. lañ leen may keroog. yor na réew ma bu ñu leen ambargo loon fanweeri fan ak fanweeri at ak nangam sax. waaw donc xaw ma pënus la ñu wax xaw ma. Mhm. yu yu mel noonu la amoon eh, di ko incarné ci penc ma. Mhm. Mhm. waaw muy la am solo ci diggante sëriñ ak sëriñ. dëgg la wa shukran ci laaj ba am solo bi. Mm, jërëjëf lu yaatu yaatu nag macha allah lu yaatu oustaz loolu dafa am solo sax oustaz est ce que tey bu ñu xëloon bu ñu jëloon ñun bu ñu maar détaillé ma subaana. bu ñu France embargo woon. wala Amérique tey am lu mu wax ci Afrique ba wax ci Sénégal. est ce que ñun du ñu dem jébbalu mbaa ñu yeew buum suñu loos neen est-ce que am na boo force ngi fi wala boobu joma ngi fi. ah mi ngi foon de xaw ma nag léegi. mais kay laa wax. mi ngi foon de. <laughs> Ah. waaw. jamono ji suñu Abdoulaye di woote lu ñu yokk ci jumaay Touba jee. Mm. lañu fa dajale woon ba léegi defe naa jeexagul. déedéet déedéet. kon force ba mi ngi foon. moom mooy li wax ci ba léegi mi mi ngi foon de. wilaayatul faq gi nga wax nii. waaw. Mm, euh, bu fekkee dañuy tabax benn citoyen rek. Mm-hmm. yeneen citoyen moom bu dul bindu bindum càmmoñ rek bokkul. Mm-hmm. te am na loo xamante ne bindum nday jori moo ko mën def ci nit ki ñaar ñu war nañ leen a yamale bu baax peese leen ngir ëllëg ëllëg du bis du añ du reer waaye jar naa sédd wallaay ndeysaan a saas kon nag waa ñu bàyyi la kon nga dem te ñëw incha allah des na ko benn laaj incha allah ba leen toxal seen ak déglu ñu demati te ñëwati incha allah أكاسنا لا إله إلا لك الجاه مع الهداية لك الجاه لا أكاسنا لك الجاه jërëjëf ci ànd beeg Sud FM seen rajo kon nag ñu ñëw ci troisième et dernière partie ginnaaw bi nga xam ne onze heures na ba tekk dix-huit minutes oustaz. jërëjëf oustaz tabaarkalla comme ni nga ko waxee léegi rek sëñ Mbacke ñu ñëw ci troisième et dernière partie incha allah. incha allah. <laughs> oustaz ginnaaw siyaar yeeg nuyoo yi ginnaaw bu ñu gërëmee Alioune Diarra ak suñu mbokku mbaax moom la Hadj Malick Maodo di leen xaar feeg douze heures ak treize heures incha allah rédaction bi dañu ci xabaar yi gën ko yaatal léegi nag ñu ñëw kon àggale fii laaj yi yemoon suñu mbokk mbaax mii moom la ñoo ubbee woon muy docteur Alioune Gadiaga nekk fële ca Sàngalkam laaj boobu bu doon laaj ci xumay ni sëñ Mbàkke boobu fekkee ci machine bi waaye oustaz wax na ci lu am solo xumay ni dafa nekk koo xamante ne ku jara jël jàng la ndax xadaafi xumay ni dafa am jàngal le monde musulman mm-hmm. mooy jom mm-hmm. ak gëm sa bopp bu àdduna yëpp taxaw ni dootuñu la lebal wala àdduna yëpp tax ni ñu la jox. Mhm. tëj nañ say robinet coupé nañ say say say say làmp. Mhm. nooy cay génnee ak ak ka nga war a tabax bu ëllëg mu gëm loolu. Mhm. loolu dafa am solo loolu mooy xorriya mooy indépendance. jërëjëf jërëjëf ci commentaire am solo. macha allah laaj ba ma ci teg nag mooy nee dañ ko ko yóbbanti moom docteur Aliou Gaye. mu ni dem jenn waay ngi nii doon julli waaye dafa óbbali ci biir julli gi waaye mu daal ni mu umusu seetaan maanaam daal ni auzu billahi mina shaytaani rajiim ku doon wax lan la ci yàlla wax waaw du lu lu yàq ak julli de waaye dana bokk ci li nga xam ne dañ ko ci sib ndax ku julli ci tàmbali bi danañ doonañ sib ci masabu almaliki yi nga wax ne aouzu billahi mina shaytaani rajiim ca kaw wax bismillahi rahmaani rahiim ca kaw kon soo ne ci biir julli gi nag tudd ca baar yooyee dañu nekk dana nekk makruh insha allah waaye mën naa ñàkk yàq julli ga wallahu taala alamu shukran jërëjëf Moussa Diallo Sanaar sëñ Mbàkke mu topp waaw kay ñu ngi koy jaajëfal baax a baax sëñ Moussa Diallo gannaaw docteur Moussa moom oustaz euh, laajam bu njëkk ma ngi ko jëmale ci alquranul karim euh, suratu luqman euh, fa la jëm aaya 33 mooy aaya yi ca mujj mhm. mi tàmbalee fa suñ borom di waxee naan yaa ayuha nnaasu taqu rabbakum wax saw yowman laa yajzi walidun an waladihi wala mawludun huwa jaazin an walidihi shay'a mhm. inna waxdallaahi xaq jërëjëf ci laajam ba am solo boobu wala laajam yu am solo yooyu bi yàllay jeexal saar woowu di luqmaan nga xam ne tàmbali bi am na solo digg bi am solo jeextal bi am solo sunu borom daa wax fii ne yéen nit ñi fii ne waxul yéen jullit yi yéen nit yéen nit ñi waajal leen bis ragal leen seen borom te waajal bis boo xam ne bu ñëwee laay ji si waadun an wala di hmm. bàyyi du fa jariñ doom <coughs> maanaam mu munu ko faa fegal doom it mënut a fegal bàyyam anwal di chey bàyyi ak doom daal lañ fay nekk mooy ñaar ñuy tukki bokk ci avion bi rek na ku nekk wut sa passeport na ko nekk wut sa visa waa tabarkàlla bu ñu xasee masoor ba noppi mu ne li yàlla digge dëgg la inna wa'dallahi haqq rikk waay bu adduna jàddal leen ba ngeen wàcc yoon wi ngeen jaaroon bu leen seytaane jàddal ba ngeen ja wàcc yoon wi ngeen jaaroon ñaar ñu dong ñoo fi waraakoon yi nag falaa taqurannakum ak walaa yaqurannakum <laughs> falaa taqurannakum alxayaatu dunia walaa yaqurannakum billaahil garuur fee al garuur mooy seytaane fële al al mooy àdduna ñëpp ko am alxayaatu dunia mm-hmm. mu teg ci nag juróomi yëf yoo xam ne <coughs> ngeen baal ma mm-hmm. juróomi yëf yoo xam ne mm-hmm. dafa xam ne yàllaa ko xam ñu tuddee ko alxaybiyaat inna allaha indahu ilmu saa banqal sa baaraam benn kañ la bis pénc fin àdduna bii hmm. yàlla képp kott dong moo ko xam wa yunazzilul xayth hmm. fu xéewal di jóge hmm. moom rek ko ko xam wallaahi wa yaalamu maa fi l arxam li jigéen ëmb moom rek ko ko xam wa ma tadri nafsum ma sa taksibu xada kenn xamul bu subaa looy am wa maa tadri nafsun bi ay ardin tamut kenn xamul fooy faatoo allahu akbar inna allah alim xabir allahu akbar shukran ci laaj bi maam sala allahu akbar loolu nag loolu nag mooy mbër mooy alxaybiyaat <laughs> ku xamul lii rek bul baax yii moom nee moom dong moo ko xam rek <laughs> képp kott dong allahu akbar Mm-hmm. macha allah jërëjëf Imaali. Eh, am na solo oustaz ñu dem. ñu dem am na tey eh, am na lu mu ci teg. am na lu mu ci teg oustaz eh, daal nee na daal ki nga xam ne dañ koo fal ci ab poste wala yu demee noonu mu dem mission. Mm-hmm. ba mu demee mission am yuñ ko fa jox. Mm, am na lu mu ko tuddee ci tubaab sax waaye mooy am neexal buñ ko fa jox wala ay kado wala yu demee noonu mm-hmm. ndax loola moom moo ko moom wala lan mooy àtteb loola. loola daa xaraama lekk dëgënut. Mm. tey bu ñu yebalee nit mu dem bitim réew. di ministre. Mm-hmm. wala muy gouverneur. Mm-hmm. wala muy maire bu dëkk wala nangam. Mm-hmm. mu dem fa ñu doon doxi mission. ñu am luñ ko fa jox. loolee réew ma ko yónni ñoo ko moom. li may wax nag. sallallahu alayhi dafa yebaloon jenn waay boori yaman. mu jëli impôt yaag azaka ya ñu wàññil ko rek impôt yaag nii temps la enveloppe bii la. azaka yaag nii temps la enveloppe bii la. daal di jël nag deux cent mille ci misaal. ne ko lii nag yaa ko moom yokk ci paas. ñoo ko jox bi waa ji ñëwee daal joxe ñaari enveloppe ya bi ci des mu def ci poosam alayhi salaam mi nga xam ne yàllaa koy xamal daal ni bilaal noddal bilaal nodd ci digg ba gi julli jotagul nag waaye bilaal nodd jàkk ci fees del xam ne dañoo woote alayhi salaam daal lu tax kuñ yónni ci yéen buñ ko joxee ñetti enveloppe mu joxe ñaar ñu ci benn <laughs> que waa ji ne ñokket ci biir mbooloo mm. génn enveloppe bi ci poosam ne ko ah, man de ñaar lañ ma joxoon bii mooy impôt yi bii mooy azaka yi bii nii nag waa dëkk baa ma ko may ñoo ne mën naa ci yokk paas alayhi salaam daal di koy posé question sa kër bàyyi lañ la fekk mu ne ko déedéet mu ne ko ah déedéet sa bopp nga demaloon mu ne ko déedéet mu ne ko tegal fii boole ko ci ñetti enveloppe bi ñu séddlu ko ñun ñëpp ko bokk <laughs> loolu nag réew yëpp a ko war a xam ci rawatina suñu réew yii suñu ministre yi ak suñu nàngam yi ku ci dem mission lañ la fa jox moomoo ko réew mee ko moom même bu dee mm. xottuk almet mm. laa ilaaha illallah waaw boo ko ñëwee yóbbu sa kër teg fa wala nga dem teg ko sa saal moomoo ko su ko defee yàtti bi maa xal la yowmal xiyaamati allahu boo liggéey nga fay Sénégal yëpp ñu leen sa seen affaire baa ngi seen xottu almet hmm. Hmm. nga xam ne bu dee eh, daal cadeau symbolique danga ko war a teg ci bureau ba waaw boo demoon ba di fa jógee it bàyyi ko fa hmm. bu fekkente ne nag loo xamante ne xaalis la wala dara bu ñëwee dem ca kees dem ca kees ga tey <laughs> ngay wax nii moom <laughs> bu doon am kees yi gaa yi dañ sa war a dem mission ndax ruusaatu yi dégg na ruusaatu yooyu baaxul de <laughs> baal ma <laughs> baaxul de eh, baaxul moom fos sama caat ay caat man de am naa sama laaju bopp oustaz <laughs> man sama laaju bopp bi hmm. oustaz léegi bu fekkente ne dukki woo nga xam ne da da ngay négocier ay chantier hmm. par exemple bu dee da nga dañ la hmm. état état la fal nga xamante ne nii da ngay dem négocier ji ay chantier chantier bi nga jox Mbacke Sylla commission commi waaw Mbacke Sylla man ma war ma koo jox ma war ko jox Pape Dieye par exemple léegi fu mu jaar rek ma am lu ma ca doom ñi al ko lépp loolu leen alal hmm. ñi al ko loolu leen alal bu ñu nekkee ci am réew di di yot di joti commission waaw commission ya nga jot hmm. la bu dee ministère wala muy nàngam loolaa ko moom mais yow moomu ko hmm. waaw dañ laa yónni mais loolu xanaa day dugg ci cadre riba wala lekk ndey la wala lan la. riche wa soxtu corruption wala alal ju araam. muy gën a compliqué di. <laughs> waaw waaw. ci <laughs> yooyu lay dugg mu daal di araam lool. lool sax léeg-léeg oustaz am yoo xam ne ay xeeti commission lay doon nekk noonu nit koo xamante ne daane ci ay jafe-jafe. nit daal man koo lijjanti ji xay na ab loxoom joti na fa wala yu demee noonu mm-hmm. léegi nag mu ne baal ma lijjanti ko waaye nangam ngeen may jox ñu jox ko ko mu dem dugg ca bureau yaa ko yéeg ko wàcc ba mu ba loola oyof moo xam bagage la yu ñu waroon a jot wala oto bu mu waroon a génnee la wala lu man di doon rek jëmmi commission jooju waaw moom mi nga xam ne moom dafa sol aw dàllam waaw di dox ba nga jot ci. Hmm. li nga teg ci loxoom dagan na. Hmm. moom mi fi dem ci bureau ba nag neexal la fa ba génneel ko. Hmm. lam teg ca loxol kookee daganu ko. loolu riche ah kañ jox ko ci bureau ba te ñu ger ko moom. loola daganu ci su ma yëkkatee dara jox ko jox ko alsaan. waaw cuun ne ko alsaan cuun. ne ko léegi dama su man ko dama oto sàngam bëgg mu def nangam moom mu jël ko. di ko dox. Mhm. li ma ko jox moom daga na sama digganteeg moom waaye moom mu dem ci bureau ba nag joxe fa dara pour signature yi gaaw mhm. kooka loolu ma ko jox daganul ci moom moom mi ko joxe daganul ci mhm. kon kon kon kon euh, ci wàllu métier transitaire nga xamante ne da ngay dox diggante ak bagage yi di dem ak ñëw ndax mu dee ku mel ne moom xamul waaw am na ku la mën a jàppaleel di lijjantil ba mu àgg bu ca neexal bokkul rek yow daal li nga ko jox moom pour ma defal la loolu. waaw moom amul problème. Hmm. waaye moom mag dem ci bureau ba nag nga xam ne kii moom danoon signé lii. Hmm. mu jox ko ndax mu gaaw mu jox ko ndax mu signé ko léegi kooku moom lañ ko jox dëgganut. Hmm. ki ko joxee li mu joxe dëgganut. macha allah muy lu muy lu muy lu yéeme nag oustaz ah, bàyyi fi dara ji kon man naa ñàkk man naa ñàkk ak itam def ko sous traitance maanaam mënoo koo laaj waaye mu ñëw ca oustaz mbay ma ne ca barabu liggéeyukaay ba te amut bureau hmm. waaye moo naan la sa waaye kilifa gi nag boo bëggee mu gaaw daa am fooy jaar ndekete moom sax moo kilifa gee yëgoo jeex na loolu baax <laughs> mais oustaz kon xanaa kon métier métier kook sóor yii eh. ne ci buntu ci buntu usine rek wala ci buntu yi nga am nañ accès ci biir am accès ci biti hmm. waaw am na ci lu baax hmm. mais am na ci lu baaxut nag am na ci loo ma baax na mais am na ci loo xam ma baaxut li ci baaxut mooy li kii lii la war a def ay signature ko far a taaj ay génn ay nangam war a taaj mu mu bëgg lu am ba tax mu toog ne duñ ko fi taaj su boobaa loolu li ñu koy jox dara dëggunu ci dañ ko dañ ko riche waaw dañ ko ko dañ ko korom su boobaa dëggalul wala nga am sa asab marché bu war a jóge bitim réew hmm. nga liggéey say nangam mu war a ñëw fii hmm. am ko ne damay am nangam pour cent. loola mu ca jël moom daganu ko ci moom. yow boo amee foo mën a jaar te doo ko jox boo ko joxee daganut. ok. Hmm? Hmm? waaw léeg-léeg mu ne leen suñu suñu suñu directeur ba benn baas ba suñu suñu suñu bis ba. waaw defee bande annonce ñu jox ñu ku ne vingt mille. Hmm. dama ne gaañu nan maag diw ak diw. nan yóbbu suñu vingt mille jox ko benn baas. ba muy laata ñëw yëg na ko. bu mu ñëwee boonu. Hmm. tabarakàlla gi fa mujj. Hmm? donc ah. parce que loolu. rajo bi moo def la benn annonce. Hmm. nga def benn annonce waa ji fayul dara mu fay leew. bala ngaa lekk na directeur yëg. c' <coughs> important nag waaw du yàlla. mais oustaz kon xanaa eh, mais kon bon mais comme nga dem màggal. maa nga dem gàmmu. waaw <coughs> maa nga dem appel. waaw maa nga dem ci cérémonie religieuse yooyu. waaw. dem fa ñibbisi. Mhm. dem foofu ñu yeewi la ñu la. waaw waaw yeewi googu. boo ñëwee ne directeur yeewi nañ ma. nga ñëw ne xiim. Ah, waaw ah, a wax yeewi nañ boo ñëwee ne directeur yeewi nañ ma. Eh, ah, affaire bi compliqué na waaw mais nag oustaz est-ce que nag affaire nag nii mu compliqué nii itam eh, amu ci loo xam ne parce que looloo dañ koo may waa ji daal moom moo ko moom bokkut ak lee dara gën na koo compliqué xam nga li moo tax gaa yi xaw a ragal l'islam nag seen affaire bi vraiment yàlla tegul alal hmm. benn atte bu oyof soo tëtëtët. ma ma kenn lu may sax. kenn benn ab benn kii bu nga xam ne tey bu ñu la nee enveloppe bii kat yow la rajo bi yónni lii mooy fayug waa rajo bi ci taxawaay bi nga fi taxaw. waaw jërëjëf ñoo ngi leen di sant lii nag mbay sa taxawaay daa rafet jëndee ko gura. waaw loolu suñu ko lekk. bu ñëwee nga ne directeur. enveloppe bii dañ ko jox rajo bi bii dañ ma ko faa jox. Ah. mu ne kon tegal fii ci rajo bi bii nag jëlal. d'accord nga door a jël. waaw na sax mën naa boo ko waxee dañ naan jëlal. waaw keroog benn baas ñëwee na ma yow mën ngaa jël waaye mm-hmm. diw mi moom ak diw mi dem nañ ca kees ngeen bàyyi ko fa ndeysaan waaw kon yow yëgal nga ma mën mm-hmm. ngaa jël bu dee yëgal mën ngaa jël nga jël kon daal dem reportage sax fi mu ne ñu jox la fa dara itam daanaka yéen waa rédaction bi déglu leen dem reportage oustaz ñu jox la transport <laughs> <laughs> itam loolu itam nu muy demee gis seetloo suñu mbàkke mm. yooyu bu doon leer ah. am na yoo xam ne kenn du ko def ab journaliste mm-hmm. waaw mm. duñ ko mën a jënd daal waaw waaw te journaliste moo war a ëpp personnalité ci nit ñi. wallaahi wallaahi oustaz. yow mooy bëri nit ñi yow yaay bëri nit ñi yaay nopp nit ñi. gisuloo keroog Cheikh Yérim Seck bi muy laaj ni ni soo ko doon seetaan ni ni mu àndeeg. non c'est extraordinaire benn affaire la. mais nag oustaz est-ce que àndoon naa ak lees. bien sûr. waaw ah, oustaz yow da ngaa baax di jàngate côté boobu rek <laughs> waaye itam man gisoo gis naa ne daal sax est-ce que sax moom bu tey doon démb dana ko laaje noonu. Ah, yaakaar naa bu ñu naan incha allah. ah oustaz parce que journaliste. moo loolu loolu lañ koy nawee. <laughs> mooy da ngay am gabarit. c'est-à-dire xam na am na. dangay gëm sa bopp ci li ngay def. Mm-hmm. Mm-hmm. yëg ne léegi comme métier la. Mm-hmm. boo cee am cent cinquante franc. moo gën ñu la ci jox six mille. waaw. dafa am ci ne boo tëddee da nga nelaw. waaw ak bu ñu mën koo dafa am journaliste yoo xam ne kenn feesu seen bët. Mm. nga see Cheikh Yérim c'est pas que jour boobu lay door a toog président moom président yi Afrique yi bëri daan toog ñoom. <laughs> ñooñu dara leen dee laaj ñu bëgg a laaj. ndeysaan sukran ci laajam maam solo bi. Ah, am na <laughs> am na solo de am na solo de en tout cas oustaz li nga wax nii moom bu jàllee. waxuma sax maa ngi naan dafa compliqué ndax di la avancé hmm. waaye li ci am solo mooy nit ki day daal di nite bu boobaa kenn dootu jëndati personnalité am mais bu xam nga tey Oustaz Mbaye ki toog. Hmm. Euh, di am da ko jox dara nga xam ne li muy wax gëmu ko. waaw moom rek bu bu nattaatee boppam xeeb boppam. waaw nga xam ne kon daal kenn dootu jëndati nit. nit dootu amul njëg. très bien nit dootu amul njëg. très bien lu génn kilifa waxoon ni Sénégal bu ne xaram Sénégalais bu nekk am naa xam naa sa njëg. waaw shukran wa shukran loolu loolu kon dootul dootul am. ayca waaw mais Oustaz boobu ba da ngay demee. ayca <laughs> est-ce que tam question ngeen amagum na. di la fay lu koy jar ba dootoo lekk kurub seen tam est-ce que jaru ko. déedéet xam nga ni sëñ Oustaz Alioune. Hmm. problème bi du li la fay lu koy jar. Hmm. bi ngay ñëw di xëy si. Hmm. ak wàcc. benn ngay am solde mbaa nga am indemnité. léegi loolu ngay am. loolu nga moom. lañ des yëpp. bu tuutee su baree loolu nga moom mm-hmm. Mm-hmm. lu tuut loolu nga moom nag soo ko doyloo day barkeel mm-hmm. day nekk ay soo ko doyloo day bari dëgg la te du barkeel ndax li la war a dikkal daa mel ni kenn mënu la koo fayaale kenn mënu lu ko fayaale moom day fekk nga doylu rek waaye kenn mënu la ko fayaale mais kon par exemple ñun bu nit bu nit wootee biir réew mu ne oustaz wari naa la nangam parce que loolu da nga koy indi fii. non non te boobu ko ci rajo bi itam. daa mel ne xanaa loolu bokkut de. du loolu moom baye boon nga taxaw ci. bu ci bokk de. wax dëgg yàlla noppi ci émission bi nit ne oustaz ni nga jàngee alxuraan ji neex na ma jàppal ci lii bu ma ko waree indil Baye Omar dina compliqué oustaz ah loolu moom. booba <laughs> loolu moom dana compliqué moom. boo bàyyi Omar yëbal yëbalul reportage. waaw kay <laughs> alhamdulilah bàyyi ma sa bàyyi ma sa ku bëri ko nañ ko nañ ko waxtaane <laughs> nañ ko gis nañ ko def joo daal nañ ko wax yi jëpp. ayca <laughs> ayca ayca ñu wéy. Mm-hmm. ayca jërëjëf. Mbacke euh, moo ca topp Oustaz suñu mm-hmm. xarit bële ca Angleterre. wala ca Paris. Eh, Oustaz Mbaye lu mu wax. man Naar euh, ne na ginnaaw siyaar yi mu indi mbokk yi nga xam te ne indi leen mu ni jenn waaye ngi jullit la. Mm-hmm. Euh, di luyee kër ce que mën na ko luyee ku mbokkulul diine. waaw su fekkee ne. Hmm. dëkk rek la. ki ñuy luyee na dëkk rek. teg ci charte yi nga xam ne moom lañ tëral ci dëkk. Hmm. waaw. Hmm. dëkk rek. nelaw yeewu. doxi say soxla. su fekkee loolu rek la. koo mën a seet kii comme nit la. mënees na ko mënees na mënees na ko luyee. su fekkee nag ki nga luyee nag daf koy soppi. da koy soppi. jëlee ko ci dëkk def ca yeneen yu dul dëkk yooyu bu wuteeg sa diine bañ ko ko jox moo gën jox ko waaw est-ce que hmm. leer na nañ alhamdulilah <laughs> jërëjëf indi euh, na ñaareel laajam mu ne euh, takk sëy dafay gis ni laa ay tàkku tàkkusaan lañ ko faral def wala ñu ko def après timis euh, est-ce que moo ñu ko takk suba teel wala ay digg bëccëg ah mag ñi bi ñu koy tëral hmm. taxbisuunahuma min baadi salaati al asr def naa jàngan ko ci alxuraan ah, <laughs> loolu ab joxoñ la ah, mooy ginnaaw jullig tàkkusaan mm-hmm. dal gay am ci nit ñi mm-hmm. xel may ñëw ak ñoom seen yooyu mm-hmm. foofu la gën a baaxee foofu lañ koy tànn moo tax ñu koy tànnoon na alxuraan joxoñ na ko fenn lu rekk la moo tax ñaari du njëkk ba noppi di maye bëriwul ah, day yàgg sax di bëcc bi day yàgg <laughs> ñu bàyyi ba ngoon ak yooyu ndax mu gën a kii. daal fi jant bi soo ak tëraay. ndeysaan yéen ci àll yi. ndeysaan. <laughs> min baax di salawaat. mag am na solo am xam-xam. Mhm. d' kon léegi yàgg naa mbàkk ki topp mooy taalibu Cheikh. mu nga Oustaz suñu jigéen boobee. Eh, nee na soppeele ci Cheikh si di rahmatullahi alayhi. Mhm. ba mu faatoo ak léegi mi ngi door def un an ci barki démb. lay ñu génn yal na yàlla yërëm ko moo nekkoon juróom-ñaareelu xalifa mhm. ci taxawaayam yu am solo yooyu ak bëgg gi mu bëggoon jullit yi doon benn. ndeysaan mm, ndeysaan euh, mbokk mi nee na oustaz euh, moom taalibe seex nee na daal dafa bëgg nga wax ko kii wate ji. war a tànn njiit. nan la war a comporté woo. ba ak ki muy tànn itam kan la war a doon. en tout cas ki muy tànn. Mm-hmm. dafa war a nekk koo xam ne kii mbakke mm-hmm. mat na liñ koy doyee liñ koy juddee. Mm-hmm. mat na liñ koy doyee. mat liñ koy doyee. waaw. la wilaaya tàmm lañ koy tuddee. mat na liñ koy doyee. bi kulli ma kalima hmm. kañ la koy mat mooy day am al adala hmm. maandu day maandu hmm. est-ce que day bi kulli ma anal kalima loolay benn bu ñaareel ba day nekk sadiqa lahja c'est-à-dire kàddoom day am sàmm kàddoom lay doon doo dégg mukk mu wax lii ñu dellu ginnaaw naan wax diplomatie la woon wala waxu campagne la woon mukk euh, waaw ah, du weddi boppam day nekk saadiq laaju muy ñaar ñetteel ba zahirul amaana maanaam ñëpp dañu am ku dañ koy wóolu daal day am confiance nit ñi nit ñi dañ koy wóolu waaye duñ defee ne moo tëj diw moo tëj diw moo tëj diw moo tëj diw mm-hmm. non non non a ah, loxoom day set wecc ci tëdd ko tëjji ñett de ñett ba ca tege mooy afifal anil maharim yi yi nga xam ni état bi daf koo moom. amul lu mu ciy lekk mbaa mu yóbbu këram. day mel ni Abdoulaye day mel ni Omar ibn Abdoul Aziz. ba fa dañuy public yi. waaw ba ca tege. dafay am kifaaya ilmiya. xam-xamu mbooloo daf koy xam. gis nga mbooloo. Mm. sax Alioune. Mm. buñ dee juróomi téeméeri nit juróomi téeméeri yet nga war a am. dëgg la de dee junni xarween yet ngay loolu mhm. da koy xam mhm. dégg mhm. ba ca tege mooy day ñaw am xel ci wàllu ni ak tëral yi ñu tëddee day ñaw am xel ci wàllu ni tëral ñuy tëddee mm-hmm. ba ca tege mooy dafay am salaabatu sifaat ak shaxsiya mm-hmm. cest à loxo ba day mel ni suñuy loxo mm-hmm. bët ya mel ni suñuy bët tànk ya mel ni suñuy tànk lu tax dañuy bañ mu jóg ci biir nit ñi am ku jóg gis manqué manqué ca yooyee wax ko ci biir mbooloo mi te kilifa kenn du ko wax yi mel noonu tey bastatan fil ilmi wal jism waaw góore waay suñ mbàkke euh, saxaayan ko dégg séeréer mu am kifaaya jasadiya yaramam bi nekk yaram bu am physique. Mm-hmm. ndax xam nga ne koo xam ne. Mm-hmm. bis bi mën nga ci am juróomi randiw mm-hmm. guddi nga am ci ñaar ah ci am tukkib naa nga barab sàngam soo dee ko tayal ni Pape Dieye doo dem fenn du dëgg ba ci tege mooy am nasab day am nationalité Sénégal képp kott dong tey du am ñaari nationalité nekk sénégalais nekkub chinois buñ lafalee falee waa lañ fal. Mhm. kon Sénégal da koy doy. da koy doy képp. <laughs> yooyu daal. <laughs> waaw ko bu nekkee ci nit ki. ki ñu tànn loolu war a mel. Ah bu bu duggatoon nag xat xataay waxtu wi. Mm. ñu gën koo yaatal. wa mm. shukran ci laaj ba am solo boobu. macha allah macha allah macha allah am na solo Oustaz ñu jaajëfal ko taalibe seex joxoñ ne itam beneen laaj bu soxal àdduna bi ak euh, monde musulman bi ni koy faral di waxee. Mm. di journaliste euh, Arabie Saoudi bale nekkoon fële ca Turquie. te ñu wax ne dañ ko faa faat nee na ginnaaw ba daal gis na ne Turquie moom daa mel ne joxoñoon nañ baaraam Arabie Saoudi ca ndoorte la wane ne daal mbir mi génn ko waaye ba nga daa mel ne fa la lépp doxee tàbbi géej muy laaj nag ba xam loolu moom man nga ci def waaw waaw kilifa ak Amérique gi ko laajee mhm. daf ne nun dofunu mhm. mi nga xam ne maag buñ ko meree torox mhm. loolu la wax waaw bay mere arabi saudi bay mere arabi saudi mii nga xam ne. Mhm. maag Israël bu ñu ko meree torox. Mhm. ah est que kon daal intérêt moo teew. di intérêt waa ji nëbbu ko kenn moom sa intérêt économie ya diplomatie ya moo tax daal jëluñ ci benn puus. jeex jeex na. Ah, ndeysaan. no comment. woowoo ngoog. weneen a ngoog tey ñun. waaw mu ngongoog est-ce que moom kay Oustaz xam naa bii daa feeñ sax di journaliste siiw waaw moo tax ñu taxawee ci nii waaye xam nga fële ca am na réew mu ñu fi doon wone dafa Birmanie mhm. gis nga jullit ya nañ leen fa doon maanaam faagaagale mujjut fenn adduna bi moom daa mel ne réewi jullit yi solalatuñ tubay jullit yi ngir défendre leen dañ koy sol ndax seeni intérêt bopp euh, yushaku an tatadaaha aleykum al umam mhm. yonent bi noonu mhm. sallallahu alayhi wa sallam jamono ngi ñëw penc mi séddoo leen ni ponkal yu sitim boolub laax niñ koy def mm-hmm. di ñaag ba mu jeex tàkk allahu akbar wallahi saabee na ko amin xillatin ya rasulullah xanaa dañuy nombre bi day tuuti waaw mooy leen yéen a am problème nombre mm-hmm. Mm-hmm. waaw ay minorité ak yéen a am problème nombre waaye jamono jële ñëw mm. bëri waaye ga du tee dañuy mel ni mboob <laughs> ko xusaayu say li allahu akbar sallallahu saaba ya jooy keroog ndax yërëm na nun ñii ñëw jamono oh, jooju wallahi mat nañoo yërëm waaw lu ngeen ñu jooyee loon rek jar na ko de. wallaay ndeysaan maa lii ko rek la di. ndeysaan oh. kenn mës ko gis jërëjëf. jërëjëf taalibi Cheikh. Eh, ci laaj am solo yooyu. yaat ma mbooj ca. ñang ba mbooj ñang ba mbooj. Mm-hmm. jërëjëf oustaz yaat ma nee na. ginnaaw ziar rek soxna si muy tooñ rek macha allah xam naa jafe si moom doomu bàjjanam la. Mm-hmm, ndeysaan kon yàlla na yàlla yàggal seen diggante. amiin yaa rabbal aalamiin. di def ca barke. amiin amiin eh, bi dafa nii mm, yan ci mala yi. Mm-hmm. jur geeg. mala yi daal di mel général ak ndegmente yi. Hmm. yan lañ ci war rey te duñ ci am bàkkaar. Euh, dafa am juróomi mala yoo xam ne yonent bi nee na ay saay-saay lañ. Hmm. ay bandi lañ. <laughs> buñ tooñ ak buñ tooñut. Hmm. ku jege rek dóoral. yë. ca la janax bokk. ah <laughs> janax. ndax boo ko bu la tooñu léegi ngay gis it bokk fi bàyyee mu tooñ. jeex na nee daal bo <laughs> fu mu na yar yi dal. ay eh, janax waaw ca la janax bokk daal bu la jegee rekk <laughs> hmm. dóor ak ban jaan ca la bokk oh. waaw waaw bu la jegee dóor ak ban xaj buy matt ca la bokk bu la jegee dóor hmm. waaw hmm. ciili ca la bokk ciili bokk jekkinte man ko dóor dóor waaw xanaa kañe ca la bokk de kon wala kañe wala janax yu baale kaña mooy yu baale kaña benn nasono benn nasono bi la benn nation bi la kaña man ci bëti waaw ñoom dañoo bokk ay kii xam ñoo nuroo janax kaña bar xeet yooyu cey <laughs> kaña ayca ayca gaawantu bi bàkkee dooro si laa ci topp nee na oustaz lu teqale sariya ak aqiqa la bëgg nga ñëwal ko ci euh, jërëjëf euh, tàqalikoo wuñu hmm. rawante wuñu dañoo ànd hmm. gis nga studio bi hmm. su bëccëgee nii mooy studio bi su dee mooy studio bi dëgg la fi nga toog bu guddee mooy studio bi mooy studio bi su bëccëgee mooy studio jeex na Mhm. aqiqa sharia nun lañ mel kon lu fi indi ñaari tur yu wuute yi waaw li li fi indi mooy ki ne ci sharia dafa dem ba ba jàmbaare ca mhm. ñu ne ko jàmbaar nga rek mhm. loolu dong la est am na solo nee na ca euh, net li yonent yàlla Moussa baak borom bi lantaraan yi ba ko ko waxee da ko caategal wala kin muy laaj ndax gis borom bi subhaanahu wa taala day lu mënta nekk wala ndax Moussa jotoon na koo gisam déet tubaarkàlla espace yi fii dafa mënta nekk Mm-hmm. espace yi mm-hmm. fii. fu ñu ko recevoir. fii ci àdduna si. waaw munu fee nekk. Mm-hmm. moo tax bu ne ko lantaraan yi. Moussa mën naa yëg lu tax mu ne ma lantaraan yi. waaw waaw. posé boppam question. waaw lu tax rek mu mu jànni ma ne ma doom a gis. waaw mu ne ko laakin. ma dalal sa xel dinaa sa xel ci. li tax may la mënuma la mënu ma ma fee gis. seetal dakaar stade bi nga yaakaar ne. war nañ faa mënoo a daje. ma ñëw xalaatal xalaatal ci stade yi bi xelam demee ci euh, stade amitié bii ci grande mosquée bi grande grand Yoff grand Yoff ba ci xelam demee stade ba yàqu stade ba ne ko man mi ngay xalaat mu recevoir ma faf naa yàqu attunuma ko <laughs> oui Moussa xam allahu akbar ay mbokkam diri ko ba mu sori mm-hmm. Mm-hmm. ba ne sunu borom mm-hmm. maa njëkk a gëm ne fii mënuñ la fee gis allahu ba mu bëggee yonent Yàlla Muhammad gis ko. sallallahu alayhi wa sallam. def na ko dama lay jëli ci espace yi yóbbu la ci yenn espace waaw mm-hmm. la fi ma xaj. waaw nga xaj fi. <laughs> ñu dem nga ne. <laughs> Eh, ustaas bi am na solo de ndax léeg-léeg ustaas am njiitum réew di ñëw ñu naan place sàngam la xajak Mhm. wala ab mitin wala làmb ji sax na ko diw gasam dañ ne na ko diw teeru ji yàlla nag bu doon ñëw place bu mu xaj ak ku koy teeru jee fi mënta ne looy coow li nag jalla jalaaluhu dégg mi am na solo lool mhm, dafa xóot dégg mi yu kay <laughs> non moom dafa garaaw garaaw <laughs> daa wa daw jàng <laughs> kay moom des na ko alxaqa bi. alxaqa la ci teg oustaz ca suratul xaqa ay 19. Euh, moo tàmbalee fa suñu borom di wax fa amma man uutiya kitaabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umuqra'u kitaabiya. waaw moom la bëgg nga tekki la. ëllëg daal sëñ euh, Saalin. Hmm. ñaara fay jot téere. Hmm. kenn ku bi yaminihi hmm. kenn bi shimaalihi. kace bi yaminihi da bi shimaalihi doonte dinaaw rek. ndeysaan <laughs> lu rek la kaca bi yaminihi moom daf daa ne haaw muqraw kitaabiya dellu mm. cee mbokkam ne liir leen li ma am ci not mm-hmm. <laughs> kaca shimaalihi mm. daf ne yàlla ci ne lam u kitaabiya dana war a fomm affaire am na solo oustaz loolu mooy ab laajam oustaz Alioune ki ci topp mooy Cheikh Abdou Ndiouk oustaz Cheikh Abdou Ndiog mooy sunu wala wala nekk ca Italie. Mhm. moom dafa indi ay siyaara rek indi ay nuyoom. Mhm. waaw kay. tubarkalla ñu ngi koy delloo nuyoo tabarakallahu moom Cheikh Abdou Ndiog ñu waxoon ne wax ju rafet. waaw wax ju rafet waaw jox jox mhm. waaw wax borom na ko sant. sunu borom. moo nu sant bu ñu wax ñu wax ju wax ju rafet. xam ni ñu waxee kilifa. xam ni ngay waxee sa moroom. xam ni ngay waxee wax juy jëriñ. ak ni ngay waxee wax joo xam ni du am njëriñ. wax juy tëjum pénc. ak wax joo xam ne ko wax pénc mi jag waaw baaxul de rekk tabarkàlla moo tax ci pénc mi nga daan gis kuy wax da wut benn géwal bu taxaw ci sawet mm-hmm. nga xam ne moom xam na wax mm-hmm. nga ne ko jottalil ma mm-hmm. mbàkk jottali ma taxutoon ñu wax nga wax pour mu wax ca ko wax ñëpp dégg ko déedéet mu lay rafetalal la très bien ah. boo duggee ca mbooy gi mu génne la waaw comme wax ji day njëkk a génn dugg ci noppam mu xam la ca dëng mu jubbanti ko balaa dugg ci noppi ñeneen tabarkàlla <laughs> parce que macha allah <laughs> waaw kay moo ci togg ah. Amadou Ndiaye Amadou Ndiaye Bargny suratul kahfi la ñëw aaye 46 mooy tolloog fi suñ borom di wax Oustaz Mbaye almaalu wal banuuna zinatul xayaati dunia wal baaxiyaatu saalihaatu xayrun inda rabbika sawaaban wa xayru amala ndeysaan mhm. Oustaz euh, mhm. wax ne vendredi bu jot ngeen ko jàng ndeysaan suratul kahfi vendredi bu jot na ngeen ko jàng mhm. macha allah eh, ndax li ci nekk cim njàngale xool foofu nga wax rek almaalu wal banuuna wal banuuna xayaati dunia alal joo am almaalu nag la wax sëñ Mbàkke alal joo am ak nu mën a toll doom yoo am ak luñ baax baax baax ñaar ñooñu muumoo ci dara muumoo sa alal muumoo sa doom ku leen moom alxayaatu dunia ziinatul xayaatu dunia mm-hmm. taaru adduna la moom mbubb mi nga sol ñoo bokk yam mm-hmm. boo sukuraatee ñu summi ko wal baaqiyaatu saalihaatu xayrun inda rabbika thawaaba mm-hmm. sadaqallaahu al baaqiyaatu saalihaat mooy yi nga xam ne boo ko defee fi lay des booy dem ànd ak moom mhm. boo duggee xab xabru mën a ci sa mhm. yàlla nee na mhm. looloo jar a def waaye oto yii kër yii ku sukuraat bàyyi leen sas alin bëriwul ku otom di di yóbbu euh, fële yoof déedéet mukk déedéet oto bu ñuul bi rek wallaahi am na façon feebar boo xam ne bu la dalee it oto du la yóbbu hôpital oto bu xonq bi rek ñaari oto yooyu yoo gën a garaaw ci oto yi. te fu fu mu romb ñu xàllal leen. ah doxuñ jàmm. déedéet Abdou Khadir Sylla oustaz Abdou Khadir Sylla Mbacke mooy topp. waaw Abdou ci surtout ci surtout duxaan lay laajte. ay 21 jàpp 22. Mhm. tolloog sunu wax ni fasri bi ibaadi laylan innakum muttaba'un. waaw. Mm. jërëjëf kon ci laaj mujj boobu. Mm-hmm. mooy suñu borom. Mm. mooy net ci lii. alayhi salaam diggante Moussa ak na kero ba Moussa liggéeye liggéey ba ba Firaw ne suba laa koy rey suba laa rey ñoom ñëpp ñu wax ko ca assemblée ba sunu borom ne Moussa fasri bi ibaadi laylan sama jaam yi dama bëgg su fajaree wala bu trois heures quatre heures du matin jotee ñi ñi ma gëm yépp te gëm la àndal ak ñoom génn hmm. innakum muttabi'un bàyyi xel nag ci ne daañ leen yëg daañ leen topp boo àggee ba ca géej ga mm. soo jàllee bàyyil géej gi bul na ko bul na ko yërëmal gaa yi boo doxalee sentiment rek affaire bi yàqu bàyyi naag ñoom ndax saasal looy indi su bëccëgee incha allah maa ngi ci yonent yàlla Moussa foofu ñu toll nag ci xam <laughs> war a toll incha allah bu bëccëg bu guddee ak imam bar ne te ngay dinañ ñëw maa moom ci almin bar xamtu bu guddee nañu dalal ak waa Siwi baax a baax imaam imaam Mama Seck tey nag waa Siwi Hadj Maag la ñuy dalal masha Allah euh, Siwi bi lu ko tabax ak fu fondement insha Allah tabarkàlla suñu mbokki xamtu boo noppee ci tafsiru Quraanul Karim bi laay ànd ak waa daara ji ci jotaay boobu di xamtu man maa ngi ci inamal munu exwatum tey mooy suma troisième partie insha Allah kon nag mbokk li ci wax ji sunu borom la ci ñun ñii la yàlla na yàlla defar seeni mbir ak suñuy mbir te def ci suñuy post dara wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.